الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsaanin ila yawmi ddin bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuba aski sëriñ tuba borom tuba moromantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal yépp noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk noo ngi lay balu àq wëlbatiku di ànd ak yéen di jégglu sunu borom di ko sant cant gu lu amuluk àpp cant ku amul ab ci boole gim nu boole ak Serigne Touba noo ngi sant yàlla ci boole gim nu boole ak Serigne Touba wëlbatiku di ñaan yàlla ci coobareem rek lay def yàlla na bokk ci li koy neex yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha taw féexal ko ba yan bi mu yenu ci dogalu sun borom mu woyefalal ko ko ba lim ci yéene lépp bëgg koo liggéeyal Serigne Touba ci toolu lislaam bi. mu def ko te ànd kook moom te daje ci ngërëmul sëriñ bi ginnaaw loolu nu xamal leen ni dellusiwaat nañ tey ci Saxum Touba mi fii ci tuubaa Mbakke ngeen jéggalu nag bu gisee tàmbaliwul alxames wala ajuma ba tey ci dibeer ji ngeen di ko soog a gis lépp dafa noonu nekkoon ci liggéey yoo xam ni benn génn ci liggéeyu sëriñ bi saa yu ñu waajee ba war koo def rek am lu dox ci diggante bi te jëm ci liggéeyu sëriñ bi loolu nag bu ñu demee ba ci kanam sax am na lu ñu ci mën a leeral loo xam di ngeen ko dégg tey nag ñetti poñ wala ñetti poñ lañ bëgg a waxtaane bi ci jiitu mooy xam ngeen ni Cheikh Mouhamadul Mountakha waxtaan na ak bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki réew mi ñëpp kenn ku ne wax na ak yow loolu kon xam ngeen ni dina am luñ ci dellu ngir laayante ci biir suñ diggante muy discours boobu nga xam ne def na ko wala soññee boobu nga xam ne def na ko démb te bi mu koy def yàlla teew yàlla def noo ngi teg noo noo ngi toog di ko teewe ginnaaw loolu mu ñëw nag ci loo xam ni dañ koo waajaloon te sëñ bi dikk na ci ndax bi sëñ bi daataan waxit jàppoon nan ngir waxtaan ci mbirum tawxiid muy wéetal yàlla ak ngëm waaye nag loolu itam daf fekk ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul loola dafa am poñ bu ñu ci doon leeral rek ci bi mu nekkee gànnaar loolu dinañ ci dikk muy loolu ngeen di faral di wax ngeen di ko dégg ñu naan gàgganti na gànnaar maanaam corrigé na leen gàgganti na leen wala dem nañ ba mënatuñoo dem ci wàllu xam-xam ci wàllu diini Serigne Touba gàgganti leen bu loolu jàllee nag leneen li moom du doon suñuy kàddu li ngeen yàgg bëgg lool yàgg koo mébét ci lu jëm ci wàllu Saxum Touba ak la ca topp ba mën a egg ci rajo ba mën a egg ci télévision bari na ñoo xam ñi koy seetaan ñoom ñëpp a bokk yéene waaye am na ñu ci defoon commentaire ba am luñ ci xalaatoon. nga xam ne taalibe yee ko xalaatal seen bopp ba jokkoo man nag ba wax ma ci laaj ma ci ndigal ma juboo ci ak ñoom loolu itam kàddu yooyu ña ko defoon di ngeen ko dégg du ñoom rek waaye ña ci mën a génn di ngeen ko dégg ndax ñoom enregistré nañ seen bopp ay audio ak vidéo yónnee ma ko ngir bokki taalibe bi nga xam ne ñoo bokk lii lépp mu liggéey Sëñ Tuubaa nuñ ci mën a ànde ak nuñ ci mën a taxawe loolu incha allah ci dellu si kon daal li may bëgg wax mooy ci jëkk nu dikk ci Sëriñ Tuubaa bi mu demee gànnaar maanaam bi mu jógee Gabon ba ñëw ci réew mi yàggu fi dara ñu jële ko fa loolu sax dinaa leen leeral ci ne fii ci sax mi insha allahu rabbi dinaa dellu siwaat kere ba mu jógee daarul Manaan jaar tuubaatul jaar njaareem jaar Tiwaawoon jaar Louga jaar Ndar ba dem jaar gaaya fépp ba dem gànnaar ànd ak Cheikh Sidé bu ne mu dellusee incha allahu rabbi balaa yàgg dara dara dara di leen ko tàmbaliwaat benn du leen tërëcc incha allah yoonu Serigne ci gànnaar bi mu jógee Sénégal ba ni mu duggaate Sénégal muy juróomi at. li nga xam ne moo jëm ci wàllu nekkam gi njaareem itam dañ tàmbali woon ko te eggul dinañ ko tàmbaliwaat incha allahu rabbi ba mu duggee njaareem ba ni ni ni ni mu làqoo incha allahu rabbi loolu yëpp nag ci projet yi la ak programme yi nga xam ne tëral nañ ko. ci lii nga xam ne noonu la ñuy xalaate ci Saxum Touba ak yeneen nag yoo xam ne bokkut ak yooyu lépp rek jëm ci nu nuy def ba rek man lépp lu ma yaakaar ni war naa mën a tax nit ñi bëgg Sëñ Touba wala ñu gën koo fonk wala ñu gën koo doyloo wala ñu gën koo yaakaar wala ñu gën koo jox seen bopp wala ñu gën koo wormaal lu ma yaakaar ni loola mën na ma koo may njëgg du cher fi man lu ma yaakaar ni loo rek njëgg du lu ma yaakaar ni war naa tax na nu wormaal Sëriñ Tuubaa wormaal yoon murit nekk ci ndigali sëriñ bi suñu kéemtalaay kattan lu ma yaakaar ni loola war naa caa mën a jaar ba mu sotti sama kéemtalaay kattan fa ma ca mën a yem njëg gi lu mu rëy rëy ci nit man tuuti na ci man loolu la bëggoon wax bu jàll. li ci des nag mooy nu ñëw kon ci sëriñ bi bi mu nekkee gànnaar dafa am dëkk bu ñuy wax jaraar bi fa sëriñ bi demee nag ci biir gànnaar bañ ko tubaab yi yóbboo exil boobu mu jóge Sarsara ñëw jaraar dafa soppi turu dëkk ba wax ni nañ ko waxee biirul xëyr nee naa leen du ma ci sori ndax dinaa leen dikkal ci histoire bi yëpp waaye lii dama ciy jukk jukki tuuti rek ci benn acte bu Sëñ Tuubaa def ci gànnaar bu yéeme boo xam ni ñun ñëpp war nañ cee jàngat te lépp mu ngi jëm ci taw tawhid muy wéetal yàlla suñu borom bi mu demee ba jarar Ahmadou Budd la doon seeti doomi Mouhamadul Hafiz doon xaritub sëñ Ibrahima Dior Amar ba fa sëriñ ba demee ca dëkk boobee ca gànnaar ba jaale way juru kooku ba noppi ak la ca xew lépp bi mu daataan dem borom xam-xam ya nekk biirul xayri ci dëkk bi ñuy wax jaraar ci Mauritanie dañoo dajaloo ne léegi nan dem ci kii nuy dégg ni ñëw na fi sëriñ bii ñuy wax ni ñëw na fi di kawri muy nit ku ñuul léegi dégg nañ ni lu xam na lu ne nan dem ci moom laaj ko sunu wuute gii sunu différent bii nu am nu laajtu ndax dañ daan tontom déet ana lu waraloon loolu mooy borom xam-xam yooyu nekkoon ca gànnaar dafa amoon ay bokki julit ñoo xam ne ñii ay tijaan lañ ñii ay xaadir lañ ñii ay tijaan lañ ñuy waaye nañu am ak wuute ci xam-xam mooy yàlla dafa wax ci alxuraan ni inna allaha maana yàlla ko wax ci alxuraan inna allaha loolu li muy tekki mooy yàlla mi ngi ànd ak nun lay tekki yàlla moo wax ci alxuraan ni inna allaha maana maanaam yàlla mi ngi ànd ak nun nun jullit ñépp yàlla mi ngi ànd ak nun boo ko bëggee wax ci nasaraan lu gàtt Dieu avec nous loolu yàlla ko wax ci alxuraan léegi nag bi ñu koy firi nag ñoom bi ñu koy tekki lenn ca bokk ya nga xam ne ñoo bokk ca genn wàll ga di warante di waxtaan ñu ne yàlla de nee na mi ngi ànd ak ñun waaye ci jëmmam la ànd ak ñun il est avec nous physiquement il est avec nu physiquement ñenn ñi loolu lañ wax ñenn ñi déedéet yàlla mënut a ànd ak ñun ci jëmmam ci meloom lay ànd ak ñun ci ci meloom ci meloom lay ànd ak ñun kon léegi différence am na. ñii wax nañ lii ñii wax li ñii ni yàllaa ngi ànd ak yàllaa ko wax mi ngi ànd ak ñun waaye nag ci jëmmam la ànd ak ñun nit ñee ni déedéet ànd mënut a ànd ci jëmmam ci meloom la ànd ak nag bi demee ba mbir mi dem ñu nekk ci ba mu yàggul Serigne Touba farafa ñëw nag yem ca loola ñu dem ci moom nag ni ko danoo bëggoon léegi nga leeral nu wax nu ñun lii ñii li lañ wax ñeele lañ wax nga bëggoon nag nga leeral nu kan moo ci am dëgg ci ñun ñaar loolu lan la bëgg a laaj laaj ko Serigne Touba kan moo wax dëgg ndax yàlla daa ànd ak ñun ci jëmmam wala daa ànd ak ñun ci meloom bañ sàkkoo loolu nag sëriñ bi daal yi boo demee lii ma lay wax ci téere bi ñuy wax irwa un nadim di nga fekk sëñ Mouhamadul Amin Diop dagana bind na ko ci tontu li sëriñ bi tontu woon naar yi ci laaj bi daf ni allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin bi alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman wa barakatan tunabbihu biha kulla man nadara fi hada alxati bi annahu tabaraka wa taala kaana wala yazaalu maana maayatan taliqu bi daatihi alaliya la maayatan tudraku bil aql mu ni yéen day maa ngi leen di xamal leen yàlla moom mu ngi ànd ak noonu Sëriñ Tuubaa ne leen yàlla mi ngi ànd ak noonu te musta dañit di ànd ak noonu maanaam mi ngi ànd ak ñun te musuta dañ di ànd ak ñun waaye àndeen wi mu àndeek ñun nag du àndeen woo xam ni du compagnon compagnonnage boo xam ni nit mën na ko xam nee na xel mënut a rëy xam-xam mënut a bari ba nga xam ni forme bi yàlla àndeek ñun façon bi mu àndeek ñun nee na xel mënu koo xalaat nit munu koo xam xel mënu koo jot nee na kenn mënu koo xam nee na àndeen wi mu àndeek ñun mooy àndeen wi nga xam ne mi ngi dëppoog na mu ko bëggee moom ak na tolloo ko dayoom akuk sellam akuk màggam na lay doon waaye du doon loo xam ni nit mën naa laqar ci ba xam ni yàlla nii la ànd ak mun waaye ànd ak moom mi ngi àndul mun ni leen te loolu day indi lu lëj ndax koo xam ne mënoo xam mënoo ko xam mënoo xam melowa ak jëmm ja nam mel bay xam nu muy ànd ak yow ma yàlla du ko ñuy xam nee na leen yàlla du ko ñuy xam koo munta xam nag munoo xam aw meloom nu mu mel bay xam melo lay ànd ak noonu wala jëmm lay am naar yaa ngi déglu de mun leen yàlla du ko ñuy xam koo munta xam nag munoo xam aw meloom munoo xam nu mu mel ndaxuk sellama ko màggam mi ngi ànd ak noonu daal ca àndin wa nga xam ne moo dëppoog bëgg-bëggam akuk màggam akuk sellam waaye du la xel mën a xalaat ba egg ci la maayatan tudraku bi aql xel du ko xam àndin wi compagnonnage bi yàlla nit du ko xam mu ne mi ngi mel ni jege gi nu jege xam nga yàlla ngi wax naan man ku jege laa ñaan leen ma may leen sëñ bi diggaatal ni mu ngi mel ni jege gi ni nu yàlla jege yàlla jege noonu lool waaye jegeem gi nag mi ngi dëppoo kartanam ak sellam ak màggam ni mu nu tiime jege googu ni mu nu tiime ni la umpi ni la tiime suñu xel ba mënu noo xam yàlla fu jege gi nu mu toll waxantu balaa di xam nag àndin wi nee na loolu xel mun ko xalaat mu teg ci ni leen summa innahu yajibul maarifa bi anna allaha subhanahu wa taala muxaalun bi an yufaariqa ayata sifatin min sifaatihi almaxsuusati bihi ma di leen xamal yéen ñii ni leen yàlla suñu borom c'est impossible munta nekk mustaxil du munta nekk yàlla maanaam melow yàlla amul wenn melow yàlla ci meloom yu wuy teqali kook jëmmam mun leen yéen ñii da ngeen jëmm ji jëmm ji la ànd ak yéen ñii ne melow bi mun leen maa ngi leen xamal ne melaw yàlla ak jëm yàlla amu ci wenn melaw wu mën a teqaliku jëm yàlla yi ba ngeen naan melaw yi la ànd ak nun wala jëm ji la ànd amu ci wenn wu mën a teqaliku jëm ji ni leen nag li ma leen koy leerale mooy ni mënu leen koo xam mooy man mii nii ngeen ma gisee nii ki ma ñuulee nii di ko ñuul kenn ci àdduna ku munta ñëw taxaw dindi sama ñuulaay bii teg ko fee ni ñuulaay baa nga nee jëm jaa ngi nee ku ko munul munoo xam yàlla ni mu ànd ak noonu mun leen nii ma ñuulee ngeen gis ma ni ma ñuul ku munta séparer dindi sama ñuulaay bi teg nee dindi jëm ci teg nee ni xool leen ñuulaay baa nga ne nee na ku ko mënul mënoo xam yàlla nu mu àndeek noonu te ku ñu a xam munoo xam aw meloom ni leen nag loolu laa leen bëggoon leer ni leen nag ñoom ñëpp dañoo am ñu yaakaar ndax ñii ay bokki tijaan la ñi bokki xaadir mu leen amma kalaamu sanusi radwanullahi taala alayhi radwanullahi taala wa maahu fikum ma hiya saxiix amma kalaamu sannuusi alayhi ridwaanullahi taala wa maahu fi xukmil ma hiya saxiix mu leen sannuusi nag cheikhuna sannuusi bi ngeen di dégg mu leen yéen ñi nga xam ni da ngeen dégg ay waxam na ngeen xam ne li mu wax ci àndin wi yàlla àndeek nun lu wér la sannuusi li mu wax ci àndin wi yàlla àndeek nun lu wér a wér la li leen tax a juum nag mooy yéen ñii di werante da ngeen a jël seen bopp yóbbu ko ci niveau bi si am te eggu leen fa maanaam si fa mu toll la waxe yéen nag ngeen eggu leen fi mu moo eggu fa mu toll ngeen bëgg a dem nag waxe fa mu waxe te tolluwu leen ak moom niveau moom fa mu toll la waxe yéen nag anzaltumuhu fi makaani fi manazilil amma da ngeen koy def muy da ngeen def Sanusi rek muy nit ko ordinaire ku mel li yéen tax na mu na mu waxe yéen moom am na dëgg la mu wax dara dañu ci la mu wax ci yàlla ci inna laa maana yëpp dëgg la waaye yéen yéen a eggul ci niveau ba muy waxee ba mën a xam loola moo tax ngeen juum nag ba juumoo ci seen biir mu ni anzaltumuhu fi ma fi manazil ama da dangeen jël sanu si wàcce ko ba mu tolloog yéen te tolloowul ak yéen fa mu waxee yéen egguleen fa ma jox la ko ci misaal tey loolu maa ko ci dugal nii ngeen baal ma tuuti rek ngir sëñ bi li ma doon wax moo ko wax waaye li ma dugal mi ngi mel ni assemblée nationale ci misaal ñu ni commission des lois am koo xam ne dafa dem université jàng ba am ay diplôme juridique ci wàllu yoon ba noppi di député bokk ci commission de loi waaw kooku bu fekkee ni kooku est-ce que mën nga koo tëkkaleeg koo xam ne baccalauréat rek la am di jàngale primaire te soriwul sax ci loi ko kooku maanaam kee loi ya muy wax di ko jàngat ci biir naan loi nangam organ nangam ndax kooku mën nga koo tëkkaleeg ki am baccalauréat rek musta xam sax jàngul sax mbirum juridique jàngul sax loi noonu la mel nag mu leen nag Sanusi fa mu egg ak fa mu toll fa yàlla tollale jëm mooy yéen da ngeen a waxee fa mu toll te yéen tolluwu leen foofu loolu moo tax ngeen juum ba juyoo seen diggante mun leen li ko war a te mooy yéen da ngeen a eggul ci darajatul mushahada darajatul mushahada mooy lan mooy daraja gi nga xam ne saa yoo fa eggee saa yu ne da ngay mën di gis yonent bi nii mu toog nga toog loolu mooy daraja darajatul mushahada benn grade la ci nit yàlla yi am na am boo ca eggee da nga da mën a dem ba toog yonent bi nii ma toog yow ngeen jàkkaarloo. loolu mooy darajatul mushahada mun leen yéen nag li leen dal da ngeen eggagul ci darajatul mushahada yéen ngi ci yoon waaye egguleen ci mu ni nag tey mu ni leen nag summa bi qadri tajawuzukum al maqaam alladi ixtira lakum al ixtisaasa bihi taqauna fi l halak kem ngeen di weesu ni fi ñu leen yemloo li fekk yéen koy weesu ngeen di dugg ci alkande maanaam fi ñu leen yemloo ngeen war faa yem toll fa war faa yem li fekk ngeen koy weesu di ñolox di ko jëm ci kaw di lijjanti yeneen ci musiba moo leen da ngeen di alku rek kon yem leen fi nga xam ni foofu ngeen toll foofu la seen niveau tollu te bu leen toll fan sànnoo si toll bay wax te loolu boo duggee ci réew mi rek léegi nii xool lu bare bari am na ñoo xam ne danañ dugg ci domaine yoo xam ni loolu moo koy waral mun leen summa inna summa innakum bi qadri tajawuzikum al maqaam alladi ixtira lakum al ixtisaasa bihi taqauna fi l halak li fekk ngeen di dépassé borne yi rek fi ngeen war a yem rek ci musiba rek ci kàmb rek ngeen jëm mu wax ko naar yi ni leen nag lii leen dal nag li koy waral ma wax leen ko man sëñ Tuubaa naar yëpp nag déglu ci biirum xëyri ci gànnaar jënd mu leen li koy waral mooy seytaane mooy seet ku eggagul ci darajul musaahada ku ne toll fi ngeen toll seytaane day ñëw ci sama xel di ko lëmbaaje ngir nga dugg ci atte yàlla yeeg yu baree bari di ci jéem a luñ di ci jéem a xam di ci loo xam ak loo xamul nee na loolu seytaane moo koy def ngir lan ngir day dem ba bëgg rikki sa ngëm ndax loolu boo ci duggee ci voie boobu dangay dem ba ci yàlla sax da koy far weddi dootoo mën a gëm nee na liggéeyu seytaane ak it li tax yàlla seytaane di ko def mooy indi fitna ci diggante jullit ñi moo tax muy def loolu seytaane di dugg ci nit yàlla yi wala ñi nga xam ne ñu mel ni yéen nee day dugg ci seen biir bu ngeen egsee fi mu lëntal seen xel ngeen dugg ci ay masala ak i question yoo xam ne di ko débattre fekk seytaane boo leen ci dugal ngir bëgg wàññi seen ngëm dem ba nga xam ne dootu leen mën a gëm dara wala ngeen bokkaale yàlla suñu ba noppi it da koy def ngir indil fitna jullit ñi ndax fitna ci mooy ñaar ñooñu discussion yooyu ñu doon am mën naa dem ba indi fitna kon loolu sëriñ Tuubaa la léegi nag lan moo ci topp sëriñ bi ni leen euh, Mouhamadou Sanusi Ahmadou Sanusi ak Cheikh Ahmed Tidiane sëriñ Tuubaa ni leen musu ñoo wute ñoom ñaar ndax ñaari xaadir la ak i Tidiane mun leen yéen yéen yéen a wute ci li ngeen di wax waaye Ahmadou Tidiane ak Ahmadou Sanusi musu ñoo wute ci li ñu wax. ni leen nag Ahmadul Kawru at Tijani muy kenn ki xam moo jiite woon ak mu leen ni Ahmadul Kawru at Tijani ak ñi mu àndal abu Aboubacar ibn Fatan ak ñi mu àndal muy xaadir yi na ngeen xam ni seen niveau ngeen waxe waaye waxewu leen niveau bu Cheikh Tidiane ak Ahmadou Sanusi loolu nag mu leen lu leen ko teg rek wax naa leen ko darajatul mushahada da ngeen caa eggagul ndax ñaar ñi nga xam ñoo jiite woon mbooloo yi ki jiite woon mbooloo bokki Tidiane yi mooy Ahmadou ak Tidjani Ahmadul Kawar Tidjani ki njëkk jiite woon bokki xaadir mooy abu Aboubacar ibn Fatan mu leen nag ñaar ñi nga xam ne ñooy seen sëriñ ñoom mosuñoo juyoo li ñuy wax it xam nañ ko te benn la kon loolu leen wax ginnaaw loolu mu leen waxi Sanusi ak Ahmadul Ghazali ak Ahmadu Tidjani ñoom ñëpp mosuñoo juyoo seeni wax benn rek la te li koy firndeel mooy fii ma toog di wax ak yéen di leen tontu. yonent baa ngi may xamal ni ma nekk fi man di ma xamal ni ma lettre booba dafa nekk ci kër di leen tontu lettre leen leen bind mu leen fii ba toog def yonent bee ngi nekk ak man di ma xamal ni ma Ahmadu Tijaani ak Ahmadu Sanusi ak Ahmadul Xasali kenn ku ci wuute ak morom ji amul ñoom ñëpp li ñu wax kii li kii wax la koy wax kon yéen yéen a nekk ci loo xam ni euh, erreur la daal di jël lettre ba nag jébbal leen ko tontu la ndax du ko bind loolu moo tax ngeen cee jot nii ba mu ko jébbalee nag naar yi daal seen gémmeñ daal di nangu nangu réponse bi complètement li Sëñ Tuubaa wax atte bi mu leen atte yéen ñi may saraan sax fi mu toll yéen ñi may saraan ñii sax ci Saxum Touba war ngeen a xam ne ku ci jàngul sax war ngaa xam ne bii tontu waaye waxuma loolu waaye dama naar yam ko doon tontu ñoom fasaase dañoo toog fa Sëriñ Tuubaa sant ko gërëm ko nangu atte ba réponse ba leen tontu dañ ko accordé accepté cent pour cent wël bi ko sant ko gërëm ko yéemu ci moom loolu itam loolu nag war na noo jaaxal noonu wala boog war na noo war na noo wala muy fierté boog ndax ku nit ku ñuul ku ne xam gànnaar ku fa dugg nga xam ne xam-xam fekk gam fa fekk baax xeeti nit yàlla yu ne ak li ñu xam ak fi ñu egg nit ku ñuul mën a dem ba ca seen biir dugg ci ñoom ñu dem ba gàkk mënatu ñoo dem mu ñëw gàgganti leen mbokk yi lii ku ci amul fierté doo am ci fierté ci dara ba yowmal xiyam dama ne ku ko ci amul doo ko am ba yow yowmal xiyam bépp jullit bu ci amul fierté te gëm naa ne bépp jullit war na ci am fierté wala am na ci fierté am na ci mbigte am na ci sag kon Cheikhul Khadim loolu la def ca gànnaar léegi nag ma ñëw ci li nga xam ne moom mu topp muy discours astafurlah ngeen jégal ma muy waxtaanu Cheikh Mouhamadul Mountakha te démb bi mu koy def noo ngi bokk bokk ak toog bokk yi ci wetam mu wax loo xam ni li ma ciy jëkk a jàngat man mooy balligh ma unzila ilayk ku fi ma sa jaar ku ne daan nga communiquer waaye amul kenn ku mën a wax ni sëñ Mountakha du communiqué xool leen ba mu toogee yàlla teg yan ko lim ko yan ba léegi ñaata yoon la sëriñ Mountakha def ci ci ci ay sorti kon kenn du ni sëñ bi waxul wala kilifa yi dinañ waxuñu waaye loolu d'une manière générale ko waaye bi lii xewee rek lii ñuy wax Sénégal rek Covid 19 coronavirus bi mu tàmbalee la ñaata ñaata yoon la sëñ Mountakha génn ak ñaata yoon la waxlu ñaata yoon kon xam ngeen ni xam na bu baax lan mooy importance su communication. Mais quelle communication Pas comme communication Communication véridique. Communication bu sell. Communication bu yiw. Communication bu ànd ak fulla ak fayda. commune communication boo xam dafa dafa globaliser lépp wax na ñi nga xam ni ñoom la war a jëkk a waxal muy almuslimuna sama bokki jullit yi di leen nuyu di leen bëgge di leen sant loolu duma ci commentaire doy na sëkk sama bokki taalibe yi lan la wax yéen bokki jullit nuyu na leen sant na leen gërëm na leen ñaanal na leen bokki jullit yi digal na boppam itam parce que moom néewul dama leen digal dañu sama bopp laa jëkk a digal donc mbay ci tànk li ma leen di bu ko wax na ngeen xam ni man sama bopp maa ngi koy def dama koy def léegi loolu la dox doxaa wax sama bopp laa jëkk a digal teg leen ci nit nag boo ko yaakaaree mu digal boppam ba noppi nekk ca bëgg nga tege ca kon looy waxati mu ni maa ngi leen di digal bokki jullit yi lan lan digal mooy ñun ñëpp li ma doon wax léegi te mu laal ci côté boobu muy tawhid wéetal yàlla suñu borom kennug yàlla gi màggug yàlla gi sellug yàlla gi moomam gi lépp koom gi bañu jur kenn kenn juru ko amul ndey amul baay amul mag amul rakk amul dendandoo amul kenn kenn tund moom rek képp dong nañ ko delloo yàlla rek moom rek képp dong rek luy mën a am moom nañ xam ne moom cundum cundum moom rek yàlla baat boobu ci la waxtaan dem nga xam mën nañ cee fanal mun lan yàlla xam na ni muy dogale xam na li muy def day def di dindi waaye xam na li muy def xam na lu tax mu di ko def waaye xam na nu mu koy defee itam ta faire et savoir faire et pourquoi fair faire et savoir faire et pourquoi faire xam li ngay def xam ni nga koy defee xam lu tax nga di ko def loolu suñu tax a wax démb loolu nag daf dañ cee man a fanaan mooy kon ndekete bu noppee nun ñëpp lu xew lu ne am na ay indication suñu borom jox ginnaaw bu mu dogalee ba noppi nii defe leen nii defe leen nii waaye nag après tout nag ah si leen ci man nag bu ngeen defee li ngeen war a def ba noppi bàyyi leen mbir mi man nag mooy lan fagaru ngaak def nga lii ak prévention loolu yëpp xam leen ni nag couronne ngeen wax couronne couronne pur piir piir piir pur kenn ko yor couronne dëgg pur vrai original kenn ko yor muy rabbul izzati wal jalaali moom rek moo yor couronne keneen yor couronne couronnaatu rek la waaye moom rek moo yor ci ay couronnaatu la kon nañ couronne bi moom moo ko yor moom moo ko say moo ko jago nañ ko delloo lépp ginnaaw bu ñu defee leen war a def ba noppi ba ca tey bu ne ginnaaw bu waxee bokki jullit yi ci tënku gi ñu war a tënku ci yàlla suñu borom jox jébbal ko suñu mbir te wax naa leen ko léegi ci ni balligh maa unzila ilayk moom li mu war a jot jotali mi ngi koy jotali xam na luy importance communication waaye ki ñuy communiquer ndax xam na moom ki ñuy waxal ndax xam na li ñu wax ak moom wala war a xam na ko déet war kon li muy def mooy yàlla dafa bëgg noonu ñëpp bu dogalee ba noppi ak bu defee ba noppi fi mu nu ci yemloo ak lim nu ci defloo nu defe noona li ma ci dolli mooy bi mu noppee ci jullit ñi mu wax ak taalibe bi yëpp ñi nga xam ni di ko sëñ Saliou da leen di waxee sañ naa leen a digal sañ leen a tere sama bokki taalibe bi Cheikh Saliou na mu ko daan waxee mooy lan mooy nun démb moom ku say rankoñ tuuruwul rek kon dégluwoo discours bi waaw ku mu tuuru rek xëri discours wala boog dese nga ko dégg daal waaw dañ lan yàlla mi mu jox lépp maanaam delloo na yàlla lépp moom noonu nekkatu maanaam kenn amatul loo wax fi naka delloo na yàlla lépp ni ko moo waaye ci delloo yàlla googu lépp nag ci la ñu xamalaale ne leen yàlla moomu moo nu booleeg Serigne Touba. ba tey dugg ci day dugg ci day dugg ci day dugg ci def ba noppi xam li mu def xam li tax ma di ko def lu tax yàlla boole nag Sëñ Tuubaa yàllaa ko xam waaye xam na ni neex na lool moom li tax yàlla boole nag moom xam nañ ni yërmande ngi ci li yàlla nu boole moom xam nañ ni bëgg noo ngi ci waaye lu la waaye mën wax rek neex na lool boole gi mu nu boole moom moo tax lenn lu nuroog lool munu ko am moo tax nag ci biir ci biir tawhid la sëñ bi waxawaati ndax sëñ bi na ni dafa jox yàlla lim moom lépp ba noppi wëlbiku nag ne yàlla moomu nag moo nu booleeg Serigne Touba maanaam nun néewunu noo dem Serigne Touba Serigne Touba nu noo dem ci moom nu fipp déedéet yàlla la ni moo nu ak Serigne yàlla mi nu booleeg moom nag Serigne Touba wëlbiku nag dox diggante bi nag moom ah diggam ak yàlla nag dañ ci maandu moom moom Serigne Touba gannaaw yàlla dañoo booleeg moom kilifa rek da koy déglu boole goo munu booleeg moom nag moom yàlla ci kattanam ak mbaaxam Serigne Touba jóg jëf la mu war a jëf lan ca xam ak lan ca xamul lépp ba egg ci moom ñi ko yàlla booleeloon mu def ci loo xam ne kenn mus koo def ak nit ku ñu boole kenn kenn mooy lan sëñ Mountakha ko wax de te ba nga ko daan wax am na mu fàttaliku ko mooy lan li war ci nun tey ak ëllëg sëriñ bi xam na ko ñaanal nanu ko yàlla te yàlla may na ko ko maanaam nun ñu li war ci nun taalu bi yëpp li war ci nun maanaam li ñuy war a soxla li ñuy bëgg ak lépp sëriñ Muntaxa nee na sëriñ bi xam na ko ñaanal nanu yàlla loolu waxul tey rek de ñaar yëpp kil xayre daare ko àllaaxira sëriñ Tuubaa xam na ko ñaan na ko yàlla ngir ay taalibeem yépp ba yàlla may na ko ko waaye waaye sëñ bi kon nun am na nun kon ñun ba léegi ñun xamuñu suñu pois xamuñu lan lay xamuñu li ñu li ñuy peese xamaguñ ko kon ndekete dara waratul ñun loolu liggéey Sëñ Tuubaa rek ndax ginnaaw ñaari yëf rek a fi am àdduna ak àllaaxira te Sëñ Tuubaa ñaanal nañu yàlla ba yàlla may na ko ba ba ñaanal nañu ko ba nangu lu ñuy defati léegi liggéey liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu topp Sëñ Tuubaa lu doyloo ko yaakaar ko lan lañ defati damay laaj rek amari nii rabbi ba an yàlla digal na ma ma wax déclaré ma déclaré solennellement man sëñ Tuubaa yàlla digal na ma ma déclaré ni xayray daare ni yiwu àdduna gu àllaaxira ku ko bëgg ñëwal topp ma ci doxaleenu yàlla suñu borom ci coobareem sëñ Muntaxa ñëw leeralaat ko nii fal yalus bii fam nu yur kilta xayray daare fal yalus bii léegi nag loolu li ñu jàng ci loolu mooy fi ñu toll képp ku di taalibe war ngaa jógaat takkaat sa ndigg war ngaa jugaat góorgóorluwaat ci discours bi soxal war naa sedd de war naa dal de waaye war ngaa jugaat amaat jom nag ak ngor jël lépp jibalaat ko si Sëriñ te wallaahi alazim ni mu ko waxee ni la amee billaahi wallaahi tallaahi yiw àddina ko allah rek tey ak ëllëg Sëriñ Tuubaa ñaanal ko te yàlla may nag ko wallaahi alazim kon loolu rek nu dese nee na faggul nanu li nga xam ne moo mat a fàggu fii ak fa nu jëm kon discours baa ngi noonu du ci sori ndaxte. li fi war a ñëw lépp tey bu soobee yàlla li ñu bëgg bu ñu ko amee lii dinañ dem ba discours dañuy toog ba caag ñu jàpp discours rek duñ ci boole leen waaye loolu li ngeen si xam lu ko waral léegi. bu loolu jàllee mu ñëw ci benn poñ ñetteelu poñ sëñ Muntaxa bi mooy tadaamunul islaam yi tadaamun nit mbokkam gi ma waxoon ca ginnaaw ca sàq ma la ci ginnaaw nit mbokkam mooy nit mbokkam kay ki nga dëkkal mbokk la jullit bi waxi noppi ki nga bokkal réew mi nag waxi noppi. ci fi mu war a yem nit mbokkam kooku nag ak dimbalante gi mu woote defoon na ci loo xam ni ñëpp déggoon nañ ko muy xaalis bu mu yëkkati woon jox ko état bi ñaari téeméeri milliards mais bii sax bii sax ku ne xam na ni sëñ Mountakha lu def di wax mais nag am na loo xam ne boo koy def il faut nga won il faut nga jaaj nit ñi am na ñoo xam ne bonuñu kiiwuñu waaye léeg-léeg am na lu leen di yëngal lu leen di galvaniser ba tax ñu def kon sëñ bi da leen di waxoon leen defoon naa waaye dinaa defaat nan lay defaate liwér daal dinaa defaat moom dina génn génnewaat loo xam da koy dimbalee doomu aadama yi loolu boo ko déggee te di murit tamal ni dana war a liggéeyal Sëñ Tuubaa kon fi ñu toll da ngay déggaat da ngay déggaat ci wax ji ma doon wax ci discours bi léegi kon da ngaa a jógaat la ko tegu ko fenn ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rek la ko teg lu mu mos a def la ci lu mu def lu ne ci liggéeyal Sëñ Tuubaa la ko teg kon nag léegi li ma gëm mooy daf na woo ci boo xam ne kenn woo tegul ba wax na ak jullit ñi wax na ak taalibe yi réew mi mu wax ak ñoom mooy lan ci turu solidarité woo réew mépp ba noppi itam lii nga xam ne moo fi tege du ma ko tëb muy li ñu wax ni jàngoro la am na ci réew mi wala am na ci àdduna si mu xam la ci àq yàlla ci jàngoro jooju ak lii suñu war a gar noonu ci jàngoro jooju bokk na ci aaru fegaru waaye bi ci ëppati solo mooy sa mbokkum jullit sa mbokkum way gëm nga dimbali ko ci li nga man fal yunfiq du saatin min saatihi maanaam ku ku tane sa morom dimbali ko soo yoree junni kii yorul dara jox ko ñaar téeméer soo yoree ñaari junni kii yorul dara jox ko ñeent leer na nañ maanaam fi mu toll yàlla lii la yàlla xaar xool xool xool yàlla bu ko neexoon ñëpp yor ñëpp yemoon mu yor ñëpp mais yàlla da ko def da ko échelonné dafa jox kii lii jox keelee jox keelee jox keelee jox am innamaa amwaalukum wa awlaadukum nam ko xëcc alquran am na ci loo xam boo ci defalul yàlla rek fitna lay doon ci yow say doom boo leen yarul boo leen tegal ci siraatul mustaqim boo leen digul ci yoonu jub fitna lay doon ci yow sa alal boo ci deful ci yoonu yàlla fitna lay doon ci yow innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun lakum soo ci deful lu ci yàlla wax rek fitna lay soppi ku nekk ci yow fitna ju métti joo xam ne fa mu la jëmee ëllëg doo ko xam waxuma ko yàlla ko wax innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun ko nan lay nekkee fitna bu fekkee ne koo ko ci fi nga ko war a teg jaarale woo ko fi nga ko jaarale jaamuloo ko yàlla jubaloo ko te defoo ko bi bu fekkee ne nag yow alal ji itam defoo ci loolu fitna lay doon ci yow kon loolu sëriñ bi leeral nañu li nga xam mooy dimbalante man nag foofu dinaa fi leeral tuuti mooy tudd na ba tudd daayira lu ngeen mos sa dégg Cheikh Bass wax na ko ni ko sëñ bi weex ñoo ngi toog ñun ñëpp mu jox ko ndigal mu xam ne ni daayira yi kon mi ngi leen di woo loolu nag la ñan laa jëkk bàyyi ba laay biir mooy ku ñuy tuddee représentant xalif général de Mouride bu ne cib dëkk mbaa cib quartier mbaa cib département ku ñu koy tuddee ku ne sëñ bi sas na la fi ñu toll lu la sas. mooy mboolem fu daayira nekk war ngaa dajale daayira yëpp ñëpp teew amul ñi ñëppay teew daayira bu nekk ñii denc nañ fukki million ñii ñaari million ñii ñetti million daayira bu nekk ci misaal bu daayira bi yoroon million boo xam moom la waroon a jébal si mu jël ci deux cent mille francs wala deux cent cinquante dem yóbbu ca kees ga daayira bu yor cinq million jël ëpp un million def ci kees ga sëñ bi joxe ndigal man waxuma ko dañuy ba ci daayira yi bu ko Dakar defa tey géejawaay bu fekkoon daayira yi fa nekk yépp amul daayira de waxuma daayira bu jëm sëñ Muntaxa rek de bu jëm ci keesu sëñ Tuubaa de daayira bu fu daayira mën a daayira laa wax sëñ jiwoy suñu sëriñ ak moom la ñuy dajaleeg ñëpp daayira yëpp lañ wax amul daayira boo xam ne dañ sëñ rek ko moom mboolem fu daayira rek kalimatu daayira la wax néewul daayira sëñ Fallu néewul daayira sëñ Mudu Sow néewul daayira sëñ Tuubaa daayira la wax fu ku am daayira ak noo mën a am daayira daayira ba la ngeen denc fi mu toll ci xaalis dem leen ngeen jël ci mu mel ni kuy génne asaka ñu dajale ko suñ ko dajalee ñu dimbalee ko ñi nga xamante ni bii ñooy ña ca jiitu xam ngeen ko mooy néew di doole yi handicapé yi ñi ca topp mooy ahlul quran ñi liggéeyal alquran te gën ñëpp te kenn gënu leen ñi ca topp day jar ba dem ba ca kaw ndax fi ñu toll amul dëkk bu amul ay daayira dëkk boo dem lu mu bon bon bon Sénégal am na lu mat ñaar fukki daayira wala fanweeri daayira mën naa jële naa jël benn dëkk rek ma ma dugal sama ma tam demal xombal ci misaal ma dem xombal tey ñaata daayira nekk xombal daayira xombal yooyu yëpp suñ daayira woon jëwriñ yi toog kenn ku ne dem seet ko yor kees gi ñu indi teg ñu jënd ko ñu jënd ko xéwal jënd ko ab dund dimbali néew ju doole xëy na waxuñu la di nga jël keesu daayira ba déedéet daayira bu dee 5 millions jëlal 1 million yi bu dee 1 million jëlal 250 mille yi ainsi de suite ainsi de suite nga toppee ko noonu toppee ko noonu loolu la bi wax loolu nag il faut ñu dégg ko appliquer ko léegi li gën gaaw ci mbir mooy il faut il faut ñu am pragmatisme waaye mbir na solo wax wax na ma déedéet di jóg léegi def ko léegi. ndax ñi ko soxla fi ñu toll léegi lañ ko soxla soxlawuñ ko pour fii ko soxla kon daayira bu ko dégg kuy représenté xalif général bu war ngaa jóg ca loola waaye sa signifiewul ni représenté xalif général bu rek moo ca doo dox maanaam am na dëkk yoo xam ne amul représenté xalif général mu ñooñu nag ña fa nekk ñi nga xam ñooy kilifa yi te kilifa yi na fa ca kanam di mag ñooy jóg ñoom ndaw ñu ñëw du daayira léegi sax jëwriñu daayira yi ñooy jóg voilà maanaam ku jiitu daayira ko ne yaay jóg seet sa morom keneen keneen ku jiit du ko defee ñoom ñu daayira nii daal laa gis loolu bu ñu ko defoon tey ji waat naa ci sëriñ bi ni la ma doon wax naan màggal dina ñëw sëriñ Tuubaa añal ñëpp wér na ma ni kon problème kenn du ko dégg kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax beneen bi toppaat mooy ginnaaw dimbali ko état bi li mu génne nangam milliard la nee na ñu ngi koy séddale du ma ci tay di ko wax xaalis boobu seen xaalis la maa ko moom yéene ko moom ku nekk ko moom jigéen ak góor ndaw handicap ñëpp ko bokk mooy xaalis bi président bi génne ñu koy séddali nii xaalis bi noonu noo ko moom di ko dimbalee waat suñu bopp noo ko doon fay ay impôt lépp wala ñu lebi ko fu ñu ko mën a jëlee noo koy fayaat di ko dimbalee waat suñu bopp kenn kenn moomu ko sénégalais bu ne dimbali gëpp sénégal fi ñu toll nii loolu mooy tas ci département yi ngeen dégg yëpp ci addu li ngeen dégg ñoon téeméeri junni ton ak nangam yëpp suñu xaalis la léegi nag li ma bëggoon mooy dinaa ci wax rek ñaar lépp lu baax rek ngir sojjee waxoon naa ko ci becc mbokku talib moo xam ne Touba gi la dëkk Souleymane su Souley Diagne ma gisaat loo xam ne xaw ma borom musuma nuyoo ak moom muy Abdoulaye Dia Séniko xaw ma ko musuma koo gis ma loo xam maa koy contrôler di gis quatre cent tonnes ñeenti téeméeri tonnes ñu ne séddale na ko bërki démb démb rek ay fukki tonnes fii ci diggante Daaru Salaam ak Mbàkke booleeg enveloppe xaalis xam nga kooku mu wér leen ni ñi ngi koy séddale ñi ngi taxaw kenn ku ne da nga koy jël sa bopp foofu dafa am mode de dimbali boo xam ne léegi li ñuy jox état bi état bi moom li ñu ko jox jox nañ ko ko li muy dajale léegi nag nit ñi seen bopp ñi ci amee bokk dëkkoon ca kaw ga am foo dëkkoon yàlla baax la ma ne la jamono wala ndax bu loolu jàllee kenn ku ci nekk muy commercant muy entrepreneur muy directeur de société muy homme d'affaires muy koo mën a doon sëriñ beeg ñëpp ku ci nekk am na loo xam ni war nga koo mën loo xam ni boo ko mënee nga yëkkati ko léegi jox ay nit ñu wóolu ñu la jege lool nga wóolu leen doyloo leen teg ku ci seen loxo ñu séddaleen la ko ndax du yow yaa mën a xam ñi soxla ñëpp te kenn ku kuñ ko joxe itam nga xool sa digganteeg sa travail bàmmeel li wacc ci laaj ngir sa digganteeg sa travail bàmmeel ci yàlla suñu borom jox ko ñu ko moom. nu mu mën a toll bu dee xaalis la lu mu mën a toll nga séddale ko jox ko ñu ko moom seet ay nit ñoo xam ne yittewoo nañ ko nga jox lañ ko kon yaakaar naa ne loolu foofu la wax ci nekk daayira bu ñu jógee ci lii xam ne individuels benn benn bi nga xam yor na seen xaalis maanaam ni ma wax ci Ablaye Dia moom loolu mu def ñaata junni Ablaye Dia ñoo nekk ci réew ñeenti téeméeri tonnes ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ko sédd ko jël daayira te daara yi moom fi mu toll kenn warut a xaar kenn warut a xaar Touba gii waxoon naa ko. sëñ bi war na exemple bi léegi sëñ bi neena dina defaat dara démb waa Touba li fi nekk ci ay nit du ma tudd kenn du ma tudd menn métier ndax boo tuddee ñu ne ah commerçant yi lay waxal an ah, dér Touba li fi nekk ci ay métier ñi xam ne suñu baaxee da leen ma ne ñu mën seen am lu man tey li ñu waroon def mooy wut bis boo xam ne dañuy woote ñépp génn département Touba gépp ñu ne mbooleem ku sosaanoo département Touba ñu ngi lay wooy ci péncum jumaay Touba wala péncum daaru minam wala xaayra wala pénc sangam def ko annonce ko ñëpp ñëw ñi nga xam ne sax kii ñu jël rajo def leen ñu ngi woo seen diw ñi ñu ñëpp te yàlla baax leen ñu tudd leen sëñ diw ñu ngi lay woo diw sàngam ñu ngi lay woo commerçant nangam entrepreneur nangam woo ñëpp bis ba su ko defee ñëpp ñëw dajale ñu yor waat naa ci rasulullah ni bu ñu ko defoon Tuubaa benn nit ku fi nekk ku soxla amul te sancaan yi sonn nañ lool waxuma ndox mi sax waxuma ko waaye fi ñu toll jamono ji toll na foo xam waaye nag lépp nag nan dellu ci sëñ Muntaxa woon balaa dañ koy muñ te sëñ Tuubaa wax na ko ci aaxiru zaman nañu muñ balaay la wax ci aaxiru zamaan nañ muñ balaay loolu la suñu fa wax léegi nag nan dalal suñu xel itam te loolu dinaa leen ci indi léegi ci kanam lii nu bëgg yóbbu suñu fit lépp corona ñaata la fi dalagul xëy na ñetti téeméeri nit la dal ñett téeméeri la dalagul xëy na wala tuuti waaye lan ñaata nit la reyagul kenn ki salon d'agriculture yaakaar naa la demoon mu dee jigéen ja kenn ki Pape Diouf ku ne xam na li ëpp yàlla na yàlla yërëm ñoom ñëpp jégale seeni bakkaar yóbbu leen àjjana waaye ñoom ñett ñu faatu ñëpp kenn ki tubaab la kenn ki daanaka France la dëkkoon kon mën ngaa wax ni bu ko doon xool réalité rek dëgg dëgg dëgg ndax mën ngaa gisagun kenn benn bu faatoo Sénégal ginnaaw kooku soxna soosu ñaataa feebar gon kon nit ñi nañ jugal seen bopp ni leen feebar bi sibro ko gën a garaaw te muy lu wér ren ay rein moo ko gën a garaaw hypertension gën a garaaw ah ndax wér na ma ni bi corona ñëwee léegi dëkk biiru nekk di feebar yii ba leen wax rey na fi ñoo xamante ni bi corona reyu ko fi depuis ba mu commencé ak léegi wat naaj bu ñu demee ci hôpital yi danañ gis koo xam ni rein ko yóbbu wala cardiaque wala yooyu yëpp te corona yóbbuwu fi lu mat juróomi kon li ma bëgg wax foofu message bi may bëgg a mooy nit ñi dalaat leen seen xel te ànd ak Sëñ Tuubaa ànd ak Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam man ni nañ dal nañ dal waaw bu bu kenn yóbbu seen fit seen fit bu ko kenn yóbbu nañu ànd ko dal feebar boo xamante ni bii ñetti téeméer feebar nañ ci te bis bu ne la ñu fukk fukki wér na fukk ak juróom waaye kon jàppe leen ko feebar ordinaire rek xëy na fa mu fa muy def musiba moom egsiwul fii yéene wuñ ko kenn waaye ku ne xam na ni fii nu nekk moom ravage bi mu fi def ak ni ñu fi waroon ak ni ñu ko jëlee eggul foofu waaw mooy dëgg ndax bu fekkee ñetti téeméer moo feebar dama ne juróom faatoogu ci ñett faatoogu ñeent faatoogu ci kon kay feebar bi jàppal ni sax mara d'Italie na dal nit ni ko sëñ bi waxoon léegi waaye ku mu daal ku ne jàppal ni yow dangay ngay wér ci kattanu yàlla. ñaaral bayit sëñ bi wax na ko ci biir discours bi xamal li ne feebar bi maari day tàlli yàlla bu mu tal kenn waaye ku ci jóge woon ba sa bakkan tamit ci jihaat nga dem jihaat na kenn mënu ko am lu ci loolu maanaam faatu ñu jàppale ni ku faatu ci jihaat ci balaa rek ko mën a am fi waaw faatu ba noppi ñu jox la degré ñu jox la garaatu ku doon jihaat ba faatu balaa boo ci faatoo garaatu ku doon jihaat ba faatu lañ lay jox bëgguñ yéenuñ ko kenn waaye dañu wax ne ku yàlla dogal loolu ba mu am jàppe kon bi ci des te ba ko fàtte mooy ci sëñ bi ñi mu gën a dalal seen xel nga xam ne ñoom war nañoo santat bu yàlla muy mbooleem kuy immigré immigré nag moo ko waxee bu gën ku ni Sénégal rek laa la wax ndax sëñ sëñ moom wax na immigré néewul murit immigré wala di dane kuy immigré nii ma jàkkaarloog ñii nekk tuubaa nekk senegal di leen ñaanal di leen yéege noonu laa leen di yéege yéen immigré yi lii de ku mu seddul sab xol dalul sab xel ah wax dëgg yàlla dootu bari na ko maa ngi leen di ñaanal te li ma war sama digg ak yéen guddi bëccëg maa ngi ci nga xam ne immigré yëpp war nañoo noyyiwaat fi ñu toll nii à travers par par la foi par ngëm war na par bëgg Sëñ Tuubaa war nañoo noyyiwaat war nañoo bëggaat war nañoo saguwaat te war nañoo dolliwaat gëm yàlla doyloo ko baat bii ku mu doyloowul ba tax nga war ngeen a dëgëraat war ngeen a mel ni ku ku ku joxaat ay garab ngeen naan ko ba ba dëgër ci baat bi rek maa ngi fii yéen fu ngeen nekk maa ngi fa ak yéen ni ma nekkee Sénégal fii noonu laa nekkee foofu ànd ko yéen ci ñaan yéeg lépp loolu yaakaar naa war naa seddu xol waaye li ci des mooy benn bi dinaa leen ko nettali ci immigré yi man mii di wax yow ren di li may def addi suñu dañ koy jox suñu tuxal waaye def rek jox ko mu jox suñu tubaab waaye bis bu ma xëyee di danaa ñaan jëme ci bëpp jullit jëme ci bépp taalibe ci immigré yooyu bis bu ma xëyee te jëm gëm naa nit ñëpp noonu la ñuy def bés bu ma xëyee suba ngoon kon nag yéen li tax nit ñi ñu ngi ñaanal fi mais kenn ku wax rek xalaat leen loolu rek war sedd na xol te wallaahi lii mooy dégg nag loolu lañ leen yére dem ba lépp jeex ngeen fàtte ko ba nekkaat ci lu raw ngeen nekkoon seen njaboot ak lépp di dem ak dikk ni ngeen ko bëggee wala ñëw toog ba faw sax ami xéwal ba ca demati ci barkeb Cheikhul Khadim kon li ma bëgg wax foofu mooy dañuy état bi dogal na nee na benn néew boo xam ni coronavirus moo la rey dootoo ñëw senegal foofu man damay joxe sama xalaat état bi dogal na li muy dogal damay joxe sama xalaat ginnaaw coronavirus li muy rey ci Sénégalais bariwul muy fu mu mën a doon wala boo xamuñu ko ndax communiqué wuñu lu mu a rey xëy na eggul fenn li dama yaakaaroon mooy bu ñu wutoon ni leen képp koo xam ni sa mbokk nekk na foofu boo mënee am matuwaay yoo xam ni état ba nekk foofa dina la ko may nga am matuwaay yoo ko indile sa bopp may nan la bu ñëwee dañ koy wutal hangar boo xam ne spécialement foofa lañ leen di wàcce suñ leen wàccee foofa ba noppi ñu ni cargo yi yi leen di yóbbu ca ca sëg yi leen suuli ñoom foofa la ñuy taxaw duñ fa jógee waaye xam nañ ñu ñuy désinfecté su néew yooyu wàccee foofu ñu désinfecté leen. ba noppi armée la yéen jëm ñu beneen leen barab boo xam ne moo xam fu ñu mën a jëm ci dëkk bi yaakaar naa lii itam bu fekkoon ne mënees na ko dara gënu ko dogal nag na li dogal ni dootu fi dugg mooy corona waaye damaa jàmm bu fekkoon ne ay bokkam daal am nañ man man ba am nañ mooy yoo xam ne day ko indi dañ ko bëgg indi far force jot naa nag avion bi nga xam ne moom ma koy indi te man koo indi bu fekkoon loolu dafa mun mënut am moom d'accord waaye bu fekkee loolu mën naa am nag indi ko ba fii ñu wutal leen benn aéroport sax aéroport Dakar bi nga xam dañ ko tëjoon ñun di leen wàcce bu ñu leen wàccee corbillard yéen leen dugal mën nañoo jëm directement ci fañ leen kii bu ñu demee ba ci sëg yéen jëm sax wala ñu wut ay sëg spécial sax loolu ci dëkk booba loolu yaakaar naa doon na neex si loolu nag ginnaaw mënut am loolu jortoon naa ne xalaat la woon lu ci mën a xew loolu yëpp jàllee rek li may xalaat mooy bokki taalibe laa li ñu wax bokki taalibe yi sëriñ Abdoulaye jaxate maa ngi ci dëgg mu ngi ci dëgg maa ngi fii ci àdduna dinaa ko fekki wallahi alazim dinaa ko fekki sëriñ Abdoulaye Diakhaté maa toog mu ni ma mu sëriñ Abdou maa toog mu ni ma Serigne Touba dafa am benn bi mu toog ci njaareem ba ci yàgg biñ jullee ba noppi ba nga xam julli nañ ba noppi sëñ bi su jootaat su jot bu yàgg yàgg yàgg boo xam moo moo ëpp julli nga doon julli nee bi su jot bi yàgg ba ci yàgg mu jóge ci su jot bi daal di wëlbatiku daal di ni mooy taalibe yi xanaa jaaxle ngeen ah mbàkke bi koy doy waar ndax su jot bi yàgg bi yàgg mu ne foofu ma su de dama leen doon xamal sunu borom lu ma fi doon may wallaahi laaj moom ma ko dama leen doon xamal lu ma fi sunu borom may. dafa ma doon xamal ni fépp ku la yaakaar képp ku la yaakaar di sa taalibe fépp fu mu faatu ci àdduna dina dekk see Tuuba Tuuba Tuuba la dekk see saa yu faatoo waaye nag li ma lay wax mooy yàlla nee na yàlla xamal ko ni waaye nag yaay wut koo xam ne ci sa ñooñ ñoo leen di jëli fu mu mën a nekk ak lu ñu bari bari moo leen di jëli leen indi nee na li ma xaw muuñ loo nag li ma muuñ loo mooy sëñ Siriloo bi nekkoon ci bàmmeelam di wadet ni ma mbàkke fi fu nit faatoo maa ko indi Tuuba wallaahi moom wax sëñ Siril doon ne moo ne wadd ci bàmmeel nee ci bàmmeel la jóge fi li ma muuñ loo fi ma sëgg moo ne jógit ma mbàkkee fu fi taalibe faatoo man mi maa ko yenu indi Tuuba loolu man moom ma ko nettali te fekk na sëriñ Tuuba kon loolu yaakaar li ma bëggoon wax rek mooy bu demee ba nga xam lee amatuñ pexe nag jàpp leen ni fi ñu toll nii kees gu ngeen suul foofu it borom a ngi Tuuba mën naa cee nettali beneen boo xam ni sëñ Babacar Si moo ma ko nettali di taalib sëñ Tuuba bu mag sëñ Babacar Si nekkoon ancien directeur technique Sonatel bu Thiès dëkk Ndar mu ni ma keroog bi ñu sore suulee alaaji ma dikkee wàdd ci ndar ba noppi sëñ Cheikh Say moom sëñ Chouaïbou moo ñëw jullee ko ba noppi bi ñu ko jullee ba noppi nee na sëriñ Cheikh Say ni mën na maa waat ni bu ngeen ko bu ngeen ubbee bu ngeen bi du ngeen fekk dara jëm ko wax loolu li ma ko waxee dara laa ko waxewul pour wan leen rek yéen jàpp leen ni bu ngeen demee bu amu leen pexe wala iyaasu billah bu mu ci dal kenn ginnaaw dogalu bu yàlla wul ku ci amul bu ngeen ñëwee fii ko Tuubaa ngi ci armeel yi loolu moo amul werante lii nag moom dafa concerné wul kenn nun rek la concerné soxlawuñ kenn ko weddi wala kenn ko gëm nun ñii ko gëm te gëm ko te nangu ko nan koo xam ne sa yoon wu ci tam mën nga cee bañ a dugg nag nun rek la concerné concerné wul waaw kon mbokk yi loolu bëggoon naa leen ko wax léegi damay taxaw tuuti incha allahu rabbi euh, soog a dikk nag ci li nga xam ni moom mooy ñaareelu euh, waxtaan bi الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى مآفني waaw jërëjëf bokk yi kon ñu ci xaaju ñaareel bi di wax ci mbir moo xam dañ koy tënk rek ndax jamono yu weesu wax yi day bari lool ñu lay yónnee ay laaj ki ay wax ak yu bëree bëree bëri waaye lu ci nekk rek dañ ko diligenté ni ñu ci war a waxee ñu waxee ko noonu am na sax koo xam bi muy yónnee dama ne ko loolu moom bépp murit bu muy naqareeti nag euh, jarul ngay war war ngaa xoolaat sa bopp Sëñ Tuubaa julli na ci géej gi julliwul ci géej gi moom murit bu muy dem ba di la naqareeti wax dëgg yàlla euh, na nga na nga ci jàngat xasaayit dëgg la xam naa sax dina xëy na dégg na waaye daal yooyu ay détails la dinañ ci dellusiwaat nag beneen yoon. Euh, li mu wax fii nag mooy ci mbirum koor gi la jëm xam nga dafa am benn waaye damay jaar ci digg bi Ibrahima fay cees la dëkk Serigne Cheikhouna Mbacké moom El Hadj Bara tontu na ko wala boog indi nay leeral ci li mu doon wax nu dolli ci ay leeral rek na islamologue la Thiès la dëkk dinay faral di wax ci télévision yooyu yooyu Serigne Cheikhouna tontu na ko ndax dafa mel ni ku indi fatwa wala mu wax ci mbirum koor gi wane ni koor gi wane ni koor gi euh, mënees na koo bañ a def ndax corona bi. Euh, fi mu ko layalee rek laay indi li mu wax bari na waaye leen rek laa ci indi dafa wax ni euh, comme docteur yi dañoo wax ni koor gi euh, corona mën na laa dal waaye su fekkee da ngay naan ndox mu tàng toujours di ko naan par ñaari waxtu par ñetti waxtu wala ngay naan ndox rek par ñetti waxtu corona bi du la dal loolu xam nga prévention la loolu fegu la dalagu la daf ne nee nañ soo ko dee def mën na laa bañ a dal moom li mu indi du fatwa xam nga ñi la gën a jàngati ci alxuraan sax wala islam sax diggal ñi la gën a ñàkk xam-xam diine sax xam nañ ne docteur bu maandu bu maandu bu correct bu jub bis bu xoolee nit ba ne ko mënoo woor kooku jërul sax ngay dem ci ab iliman suñ la bi docteur bi diggam ak yàlla laa wax de docteur bu maandu nag laa bu jullit bu maandu xool la ba ne la mënoo woor loolu loolu wax na ko ñetti yoon ci waxam loolu jërul loolu du lu bees loolu ku ko docteur wax ku ne xam na ni lu wér la egguñu sax fu ñu dem ci naan nañ wut commission ndax docteur bi lu wax déedéet docteur bi yow yow mi ciy dem jullit nga am nga yére bëgg ngaa war ngaa xam docteur bi ngay dem ban genre doctor la ak dox docteur bi la prescrire loolu ban nit la waaye wuloo réer ne docteur bi jullit la ku maanul la ku fonk diineem la ku sàmmonte kuy xalaat yàlla la dem ban la yow mii mënoo woor bu baax automatiquement doo woor loolu mu du lu bees moom du lu bees bu fekkee ni boo boo wéree nag nga woor bu fekkee ni nag day tawat joo xam ne doo tàggoog moom bu boobaa am na noo koy fayee koor gi sax yu nekk da ngay leel miskin bis bu nekk bu dee nag koo bu dee nag jàngoro joo xam da boo noppee da ngay da ngay du ma ci so li ma bëgg wax rek mooy Ibrahima a leeral li sëñ Cheikhouna doon wax ko sant ak ñi mel ni moom ñëpp xam nga moom indiwul fatwa waaye léegi fan ngeen mas a gis ci lislaam dafa am fiqhul ibadat ak fiqhul muamalat fan ngeen mas a gis ci islam loo xam ne dalagu la nga ni na ko def ndax du la daal mu teelaa woor maanaam loo xam ne dalagu la yow jàngoro ji dalu la ngay def loo xam ne dalay teewoor te jàngoro ji dalagu la yéen ñi jàngul lislaam sax posé naa leen question boobu loolu la Ibrahima Faye wax léegi dangaa war a naan ndox mu tàng di ko faral di naan ak ndox ci bis bi ndax jàngoro ji loo dal mais nas sariya islam buy wax day wax lu leer liñ la wax waxuñu waxuñu foofu amul fer fa ko islam indee kenn déedéet maanaam jëfandikoo lii ndax boo ko yow bul woor del jëfandikoo ndox ndax bañ laa ki mu dal ba noppi lañ wax ne la l'islam day ñëw direct ci at waaye yow dala ngay am fitu naan nee na nee naa def ma woor ndax ndax ndax dama bëgg dama bëgg a fegu wiqaaya laa asumu min ajlil wiqaaya du ma jeûner parce que dama damay def prévention ku ngeen ma sa dégg loolu lii la nguur si wax nag du ma woor ndax dañuy bu fekkee ndox dañ docteur dañ ndox mi ngay naan mu tàng wala bu ko defee du la dal bu fekkee feebar bi du la dal yow dalu la léegi yow far ngaa mën a am sañ-sañ ci lislaam foo ko gisee ci lislaam fan ngay gisee loo xam ne da koy jëfandikoo bañ a ngir bañ loola dal la te dalagu la du ma ci sori loolu leer na yaakaar naa li ngeen dégg li mu boo wax rek mooy damay gërëm sax sëñ Cheikhouna tontu li mattal na wet googu waaye danaa ci indiwaat ci koor gi rek la li tax ma di ko indi koor gi njariñ li mu am ci koor gi ci ci mbir mi ci feebar bi di ci nuyuwaale sama bokk yooyu nga xam ni noo bokk lépp bokk sëñ Tuubaa bokk lépp di bokk yàlla boole woon nu jàng fii ci réew mi leen war a jàng ba xam ci lislaam jóge fi laxas dem jàngiwaat ñii Caire ñii Égypte ñii fi ña ma nekkaloon Arabie Saoudite ma jiital Cheikh Sidi Mokhtar Ka di mbokk di xarit di lépp nga xam ne ñëpp xam nañ ko saa yu ñuy def cérémonie officielle mooy kiy jël micro di wax délégation yi Cheikh Sidi Mokhtar Ka Serigne Cheikh Bousso Serigne Cheikh Bousso moom Serigne Assane Bousso di jumaa yi Guédé Serigne Mountakha Diatara doomi baay Alhaji Serigne Diatara Serigne Bachirou Lo di imaam yi Masalikul Jinaan Serigne Mountakha Diatara Serigne Bachirou Lo sëriñ Alaaji Gay ak sëriñ Aliou Alaaji Lo moom sëriñ ñii ñëpp noo bokkoon nekk Arabie Saoudite di jàng ñii ma wax ne dañoo bokkoon nekk Riyad moom ma di leen ci nuyuwaale ndaxte gëj si yàgg yàggan waaye dama di nuyuwaale ak delloo leen njukkal li tax ma di ko def mooy fierté bi sëriñ Cheikh naa moom Médine la nekkoon mbégte mi nu am nun ñëpp ngir jóge ci sëñ tubaa xam leen ñu war a xam lépp bu neexoon bañ a jàngi bu dee diine rek nu dem laxas jàngiwaat ba ñëw ba noppi lan gëmoon sëñ Tuubaa ak nan ko defoon dara wàññi ko ci da ci yokk yéen a ngi dégg sëñ Mountakha dara muy def ay bayaan ci jumaa ji Cheikh Sidi Moukhtar ko guddeeg bëccëg ngeen di ko dégg sëñ Cheikh Bousso ma ci jumaa ji di gerte gi sëñ El Hadj di jàngale ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëñ Bachir Lo muy imam Masalikul Jinaan nekkoon New York ñii ñëpp noo bokkoon mooy suñu promotion Touba ñu jógewoon Touba ñëpp te nekk kon maa ngi leen di kon ndokk bi nga xamante ne bii suñu xol sedd na doon naat fierté boo xam ni kenn ku ci nekk fi tool bari nañu xamul xamuñu fu ñu jànge te foofu lañ génne te doo ko xam ci kenn te kenn ku ci nekk tey nga gën a bëgg Sëñ Tuubaa kër nga gën a dellu tey nga gën a wóolu ñii ma leen limal ak ñeneen ñi ma mënta lim waaye ñii moom dañoo bokkoon di promotion ñu nekkandoor yat lu mat fukki at kon noo ngi leen di nuyu au passage yi ma tudd yëpp loolu moo di wax leen lii benn waay bu ñu wax Mouhamed Kahil moo ko wax ma liir ko ngeen dégg ci koor gi li mën ci coronavirus ak lu dul coronavirus جامعة جنوب كاليفورنيا قامت بدراسة غريبة من نوعها للبحث عن أفضل نظام لتجديد الجهاز المناعي لدى الإنسان وجعله أكثر قوة وكفاءة وكانت المفاجأة بالصيام ثلاثة أيام متتالية الدراسة استمرت ستة أشهر حيث وجد العلماء بأن الجسم قضى على السموم almutaraakima wal xalaaya attaalifa allati kaanat ibaan ala hada aljism wa asbaxa alnidaamu almannaaci akthar kafaatan wa faaciliyatan fi muwaajahati alfayruusaat fa indama yabda aljism bisiyaam يقل عدد الخلايا المناعية بشكل مفاجئ وبمجرد إعادة التغذية تبدأ الخلايا المناعية بالتشكل من جديد عندما تجوع خلايا جسمك تصبح هذه الخلايا أكثر مقاومة أكثر مقاومة للإجهاد وأطول عمرا على العموم ñëpp dégguñu arab dama ko doon tënk rek pour ñu xam ni dafa am source bu mu jógee kii benn université North California North California université ba fa nekk ci Amérique ñoo doon def benn étude ci organes yi anticorps yi organes yi anticorps yi maanaam cër yi nekk ci biir te mën a défendre nit ba yan yi du ko dal lan moo ko lan lan lan moo ko mën a dundal lan moo ko mën a dëgëral lan moo ko mën a gën a jox doole ba lu ñëw ci moom mu mën ko defar muy cër yi nekk ci biir te mën a mën a aar doomu aadama ba ba lu ñëw ci moom mu aar ko ba du ko dal université bii nag dañoo xarañ loolu doon def am njàngat wër nañoo wër a wër ba sonn waaye bi ñu defee seen njàngat ba gëstu ba gëstu juróom benn weer nee nañ li gën a gaaw li ëpp solo li ëpp efficacité ci organe anticorps mooy cër yi nekk ci biir nga xam ne bu corona corona doon ñëw tey mën nañ ko mën nañoo xeex ak moom ba daan ko cër yooyu li ko gën a gaaw mën a dundal lii tax muy dund te du dee nee nañ mooy woor ñetti weer ñetti fan ci ci ci ci ci ci weer wi. woor ñetti fan ci weer wi weer wu ne nga woor ñetti fan déglu leen baax baax ci ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam université bi du ñu ay julit def nañ benn étude nee nañ ñetti fan nga di ko woor weer wu ne nee na boo ko defee organes yi ne ci biir cër yi ne ci biir. te nga xam ne ñoo fa nekkoon di xeex di défendre nee na boo wooree cër yooyu dañuy dee dañuy tàmbali dee soo wooree rek dañuy dañuy dee completement nee na bu ñu dee nag ci biir ñetti fan yooyu buy jeex cër yooyu day mel day fa ñu nekkoon dafay am yeneen cër yu judduwaat bi di ay di ay xale di ay ndaw di ay waxambaane yoo xam ne ay cër la ñu doon yoo xam ne dañu nekk si biir yoo xam ne dañuy bees taq ànd ak doole. nga xam ne ñoom ñee dañoo màggat koor gi moo leen éliminer ñu dee cër yi nag yu bees taq la ñu doon yoo xam ne dañuy ñëw lu ñu dañuy mën a dañuy mën a distinguer virus yi virus bu ñëw dañ lay mën a xool bu dee corona bu ñëw ñu mbëkk ko wala ñu bes ko mu dañoo ram maanaam cër yooyu yu bees la ñuy doon li la ko mën a may nag mooy woor ñetti woor ñett ñetti fan déglu leen baax de di ngeen yéemu lool mais lii gën a yéeme mooy li ci ëpp solo junni at ak ñeenti téeméer ba ko yonent bi waxee ak léegi découverte scientifique bu yàggul ci Amérique découverte maanaam feeñal xam-xam bu jóge ci wàllu médecine bu xewee ci Amérique yonent bi kañ la ko waxoon junniy at ak ñeenti téeméeri at ngeen mooy lan mooy inda siyaama inda siyaamika li thalathati ayam yuati jasadak al ishaara bil bat bi shakl bi tashakkuli xalaaya jadida am na benn université bu ñu wax Illinois mu nga nekk Chicago ca Amérique ba tey mu ngi génn ci benn magasin bu ñuy génne ay xabaar Nutrition and Health Hygiene noonu la magazine bi tudd Nutrition and Health Hygiene ci lañ bind ñoom wax ni maanaam yoonu woor ñetti fan yooyu yoon wi ñu ko war a defe maanaam woor woor googu ñetti fan yoon wi ñu ko war a defee mu mu gën am njariñ nee nañ mooy nga woor fukki waxtu ak juróom dog juróom-ñetti waxtu te daanaka loolu mooy nun nuy woore fukki waxtu juróom doo ko lekk juróom-benn doo ko lekk juróom-ñetti waxtu nga nga dog ko loolu mooy lan mooy 16 8 noonu la ko indee 16 8 lu mu lay jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki gën ñëpp ñu ko ci ñëpp. amara an yusaama thalathata ayamin fi shahr dafa digle woon yonent bi dafa digle woon ñuy woor ñetti ñetti fan ci weer wi yonent bi cay jamono ñetti fan la daan digle ñu di ko woor sabihata ayamil biid salaasata achara arbaa achara xamsata achara fukk ak ñett fukk ak ñett fukk ak juróom yonent bi dafa digle woon ñuy woor ñetti fan ci weer wu ne dem na ba sax egg ci di ko xemmeem loo nit ñi ba ni siyaamu salaasati ayaamin fi shahr ka siyaami dëhr dañu ku woor ñetti fan ci weer wu ne mel na ni woor nga àdduna jëpp yonent bi ko wax ku woor ñetti fan ci weer wu ne mel na ni woor nga àdduna jëpp waa njàngat mii ngeen gis université bi génn ko mu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ba noppi mën a taxaw bu corona ñëwee ak i dooleem ak bagaasam lépp koor gi nga koor dina am ay organes yu bees yu nekk sa biir yoo xam ne yow nag Ibrahima nga bëgg a wax ni léegi nañ naan ndox mu tàng wala mu sedd wala nangam ci loo xam ne dalagul nit ki nga bëgg ko wutul ab atte ab atte balaa am day mbir bi day xew ba noppi waaye lu xew nga bëgg ko wutul atte ci lislaam adduna sax loolu nangu ko vraiment lii am doy na waar loolu ci Sénégal. ci yenn rajo yi ci yenn télévision yi ci yenn par maanaam Sénégal li fi metti dinaa ko wax li xaw a doy waar mooy ñi jàng diine bariwuñu maanaam ku ci am na ñoo xam sax jàpp sax mënuñu ko kooku nag bu fekkee ne am na ko jàng arab def primaire dong wala mu weesu ko bu dee wax ak koo xam ne xamul alif ak baa sax xaala ji nga ko wax mu gëm ko lii nag moo fees Sénégal rajo yi télévision yi dana da ci dégg nit mu lay waxal di la firil alxuraan wala mu tax bari na ci yoo xamante ne bi wallaahi ñi koy déglu buñ jàngoon danañ dar seen gémmiñ lu ci bëree bëri noonu la mel lu ci bëri noonu la mel am na ci ñoo xamante ni bi boo leen di déglu sax da nga naan yow yaa waaye ñeneen ñoom du ñu xam ndax sénégalais quatre vingt quinze pour cent quatre vingt dix quatre vingt pour cent mënuñoo distingué ndax kii xam naam xamul na ne xaaral xaaral rasulullah sallallahu alayhi wa rek wala mu taree alxuraan rek ñu ni dénk ko mooy waaye lii ma leen bëgg wax ci koor gi daal lool laa ci bëggoon indi incha allahu rabbi ñu xam ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko wax naa leen ko léegi. muy ñetti fan weer wu ne te koor googu boo ko kooree docteurs yi ak chercheurs yi nee nañ euh, yi nekk ci sa biir nga xam ne moo doon war a défendre jàngoro ji ñu mën ko waree xeex ak moom nee yooyu booy woor rek dañuy dee waaye ci ñetti fan yi balaa jeex bu ñetti fan yi jeex day am yeneen yu judduwaat bees taq-taq ànd ak doole ànd ak force lu ñëwati rek ñu mbëkkante ak moom te loolu sax war ngeen ko yàgg dégg war ngeen yàgg dégg koor li muy jëriñ sur le plan loolu docteur yi wax bii mi ngi nii. kon mbokk yi loolu laa leen bëggoon indi ci wàll woowu li ci des nag mooy dama koy tënk rek euh, mooy bu ma ko wax ni koor mën naa indaale saafara corona bii ñuy wax naan nekk naa nekkul lu mën a xew koor gi mën naa tàmbali léegi mu indaale saafara waaw ndax yàgg koor yàgg naa def loolu yàgg naa dindi jàngoro ci nit loolu du ma ci sori moom waaye Ibrahima Faye bu ëllëgee loolu la suñu Cheikhouna Mbacké moom Alaaji Bara wax lan mun ko te am na ci ñoo xam ne dañoo jàng ba yor seeni diplôme egg fa war egg xam li war a xam. loolu nag taxu ñoo jóg waaye dañ leen bëgg a rek euh, dañ ñu ceel rek waaye am na ñoo xam ni euh, bu ñu xamoon li ñu yaru ci xam-xam te ndokk ndax kenn ku ci nekk yaa ngi def ci li la war waaw nañ moytu nag ndaxte Sénégal ak adduna bi am na ay lobby yu bari yoo xam ni dañuy jaar à travers danañ jaar ci nitul diine danañ jaar ku ñu jàng nag xam-xam da ñëpp pour jaxase xeli nit ñi ndax bàkkaar personnel mën naa bañ a garaaw mais bàkkaar pluriel général moo bon xam nga li ngay def yow dong képp rek. jaaduwul sax waru ko def waaye li ngay def ba noppi di ko defloo ñeneen yaa ngi mooy ba noppi di mooy loo junni nit bokkut ak mennum yow rek mennum yow rek yaa sa digg sa borom rek la tey waroo ko def itam kenn waru ci sukkandiku ba def ko waaye nag jëmmi loolu bu jàllee ba noppi nag nga bëgg wala nag askanu lëmm wala mboolum lëmm tey jii li nga doon wax noonu sa fatwa boobu wala sa waxi wax jooju ngay wax soo ko waxoon tey am na ñoo xam ne bu ñu amatul rajo te dégg loolu mën def attention diine du caaxaan koor gaa ngi ñëw yàgg naa ko wax ay yoon yoon yoon yoon nañ bàyyi koor gi ñuy foye di ko këll këlle ci ay sketch ak yeneen ak yenn yii nañ ko bàyyi nañ bàyyi yenn te diine nañ ko jox li moom jox ko xam ay doom aadama la du ay malaaka mais yàlla dafa am loo xam ne lu ci nekk dafa am nu ko sartale nañ ci def suñ suñ nañ ci was luñ suñu àq loolu mooy dëgg li nga xam ne moom lay bëgg a wax di ko jeexale ko coronavirus bi ma doon wax léegi buñ ko jàngatee ni ñu ko jëlee ba nit ñenn nga xam ne tiit nañ dëgg la naam ñu war a fagar war a def lépp dafa am leneen loo xam ne nekk na ci biir incha allahu rabbi dinañ ci dikk léegi ci kanam bu soobee dinañ ci dikk léegi. alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xat saxani li watani bi nafa ma fani li ma bëgg wax mooy coronavirus wala covid 19 bii ñu ni moo lëmbee adduna bi waaye ñun li ñu ci war a gën a yitteel noonu africain yi li ñu ci war a gën a yitteel maanaam njël jóg yi nu jógal coronavirus ak njël mi nu ko jëlal ak fii nu ko yóbbu fépp te coronavirus euh, boo xam ne ñuy wax insuffisance rénale insuffisance rénale maanaam li ñuy wax ay roñon yu nekk ci nit te muy daal ñu bari Sénégal OMS kuréel gi nga xam moo yor moo lëkkale lépp lu jëm ci wàllu gër gi OMS organisation mondiale de la santé organisation mondiale de la santé nee na insuffisance rénale te ñu bari am nañ ko nee na mi ngi rey juróom-ñetti téeméeri junni nit ci at mi ma joxe beneen misaal ci loo xam ni garaaw na te kenn jugalu ko jug googu te li corona rey reyagu ko maanaam li li corona rey reyagu ko. mooy lu mel ni boo demee ci Google ambassade France bu Sénégal moo ko publier vingt sept mille accidents moo am Sénégal deux mille dix huit vingt sept mille accidents juróom benn téeméeri nit faatu nañ ci ak fukk ak ñaar ci Sénégal juróom benn téeméeri nit ak fukk ak nit nañ ci Sénégal deux mille dix huit vingt ci deux mille dix téeméeri nit ak fukk ñaar corona dafa defagoon na loolu Afrique yépp Afrique laa la wax de waxuma adduna bi. trois cent quatre-vingt mille ñett téeméeri junni ak juróom-ñetti fukki junni nit faatu nañ fi sibiru leen rey OMS ko wax de ana booba noonu fu nu nekk ak ndax jóg nañ def li ñu war a def lépp ci ci ci prévention ak ak taxaw temm ci xeexlu ñett téeméeri junni nit ak juróom-ñetti fukki junni nit ci 2018 benn at rek faatu nañ ci ay doomi Afrique rawatina ci Afrique soowu jant gii te sibiru moo leen rey ndax ju ni ñu jógalee corona jógale woon jógale nañ ko si buru bu loolu jàllee insuffisance rénale bi nga xam ni mooy jot nit ñi te li koy faj di lu gaaw muy kër yi defar yii jigéen ñi toggee di ko dugal ci seen cin yi di ko togg di ko di ko safale seen cin mu nekk Sénégal ku ne defar ci benn tey luy tee tey nga xam ne mooy tax nit ñi juróom-ñett fukki junni ñi ñëpp de huit cent mille huit cent di dee lu tax huit cent personnes di dee ginnaaw loolu moo koy rey te lii moom taxaw rek waxuñu ne dañ ko bàyyi mais lu tee tey ñu jël encadré ko ay garde fou wax ni juróom ko fi wala ñetti nit te kat dañ leen di contrôler xool ndax li waaye lu fi dal nit ci Sénégal ci affaire rein ak hypertension yëpp yii ñuy toggee di ko def ci ci nii moo ko waral est-ce que ni ñu jugalee corona jugale dañ ko loolu dañoo mel ni amul amaluñ ko sax fayda beneen bu jàllee quatre-vingt-dix-neuf mille corona li mu rayagul ba léegi matagul téeméeri junni. ci àdduna bépp laa wax nag li coow li bari bari bari matagul téeméer junni te nee naa sibru rey na ñett téeméeri junni nit ak juróom-ñett fukk ci menn at te jóg gii ñu jógal corona jógale guñ ko noonu te lii ma leen wax ci mbirum xorom si ñuy def di ko def ci yii nga xam moom la ñuy togg di ko def ñu di ko liggéey fii Sénégal tey ñu benn mesure jógaluñ ko benn jóg boo xam ne bu ne au contraire bis bu ne day gën di bari bis bu ne kenn créé usine teg. te condition néewuñu bu ñu ko def mais condition yi nga xam ne moom lañ ko waroon defee dañu waroon indi ay docteur ay médecins yu di ko contre vingt quatre heures sur vingt quatre muy question santé publique boo xam mi ngi rey ay junni Sénégalais fi ñu toll nii te kenn waxu ci dara kenn waxu ci dara loolu kon lu mat a bàyyi xel la insuffisance rénale hypertension diabète sibru li ñuy faagaagal corona néew d'accord mën nga may lii ni mu koy defee ñee du ko ni defee mais li ma wér mooy monde bi bu ñu xooloon li fi faatu te corona reyu ñu leen bi korona tàmbaleek léegi te mu jóge ci yii ma leen di wax mooy ëppli li corona rey loolu nag sëbla la ko bënn nga ci biir wax ji dafa xóot loolu xajul fi moto waxtu wee jeex waaye lu mën a xew daal nit ñi nan dalal suñu xel rawatina ñu yaakaar suñu nan dalal suñu xel te ànd ak suñu jàmm bu leen kenn fab bi li ma jëkk mooy centre bu ñuy wax Gindi li xam ne état Sénégal man dama xamul lan la ndax loolu crime la centre bu ñu wax Gindi ñoo dem ba Yoff fekk fa daaree alxuraan ñu ne dañuy jël dongo yooyu yóbbu ànd ko policier te loolu état bi nekk fi te ñu ne état bi yëgu ko te ab policier lañu àndal centre Gindi bi ngeen dégg ci Dakar te am na ci koo xam maa ko dégg ab tubaab sax mooy wax xawma Gindi la waaye am na ci boo xam ci benn journal maa dégg tubaab bi muy fan ngeen ma a dégg loolu beneen bi may waxaat ci sama kàddu ngir yàlla nu xalaat ko ñun ñëpp ay citoyen lañ ñii nekk ci frontière Mauritanie waaye ambassade Mauritanie bi Sénégal bi nekk Mauritanie lu ko tee dawal otom ba Rosso mu xool ñooñu ci ban situation lañ nekk mu luy ay oto yóbbuwaat leen biir Nouakchott luyeel leen kër foofu ndax ñee mën nañoo dem bëgg egg foo xamante ne bi faatu man na leen faa fekk fee corona man leen ba rey waaye ñoom mën nañoo faatu ca frontière ba lu toll un dem nañ ba amatuñ luñ lekk di jaay seen i ambassade Sénégal ba nekk Nouakchott lu ko tey ñëw ci biir Rosso xool leen loué ay car delloo leen Nouakchott wala ñu def ay négociation ak ministre des affaires ñu dugal leen ci bateau dugal leen Sénégal mu jeex ndax moom duñ téeméeri junni ñaar téeméer cent nangam personne dong lañ dans quel état sommes-nous dans quel état sommes-nous wax dëgg yàlla ñii ay doomi Sénégal lañ lijjanti biir du dara joxal ordre ambassade bi rek mu dem loué car indi leen ñu loué leen kër Mauritanie ba mbir mi jeex wala ñu négocier ak Mauritanie mu ubbi ñu bàyyi ba guddi ñu jël ay loge ubbi leen ñu dugg ñu tëjaat man dama xawul daal dëgg dëgg daal ah, am na loo xam doo xam nu mu niru beneen bi ci mooy li ma doon wax ci vaccin yi tàmbali woon naa ci waaye am na ci def mbokk mu baax mooy xalaat TV moom am na yaatal gu mu ci def te man ba ma ci wax ñaari at ci ginnaaw ba may waxtaan ci Saxum Touba ci télévision ba am na bis ma indi fi ab tubaab boo xam ne ngir mbiri vaccin yi ak toq yu ñu jox nit ñi loola ba ma ciy wax laaj ñaari at la booba kenn waxagu ci woon kon mu bëgg a xam ni kon mbokk moomu li mu def ñu bàyyi xel bu baax ba ëllëg ak waxtu wu mën a doon ku ci nekk na ngay xool li lay jox nga di ko lekk wala nga di ko naan wala nga di ko pikiroo loolu dañ koy wax mu leer nañ ndax lépp dafa léegi nag fi may jeexale samay wax mooy xant euh, ñëpp gërëm ñëpp euh, wax ni ku ñuy wax sëñ Cheikh Ndiaye nekk ca Canada dafa am commentaire bu mu defoon ci Saxum ba léegi mii ci commentaire yi proposé woon ni dafa bëgg ku ci abonné ku ne joxe ñaar téeméer ngir ñu mën a am ay matériel ak i ak lépp pour tey ji doon sàq mi chaque semaine mais waxtu wu ne ndax ñoom xëy na li nu yàlla may ci compétence ak expérience en tant que expert en communication bëgg nañ ñoom loola ñu jariñoo ko mu mu jariñ yoonu murit mais mu jariñ Sénégal gépp loola nag man du jël initiative bi moom moo ko jël wax ko bi mu ko waxee am na ñeneen ñu def ay audio yónnee ma ko ñaan ma ci ndigal ba ñaan ñu teg ko ci Saxum Touba incha allahu rabbi bu lii jàllee bii dina jàll di ngeen gis sëñ Cheikh Ndiaye mu toog ca Canada def benn vidéo def appel boobu di ngeen gis itam sëñ Mortal mu def ci benn audio ak sëriñ ma sëriñ Fall ñoom ñëpp bari woon na sax audio yoo xam ne dama ne lii ñett yi doy na ngir ñoom dañoo bëgg woo képp ku abonné nga am noo tax lool nag man li ma war a def ci yoonu sëñ Touba sama kett maa ko def. ajjuma ju nekk alxames ju nekk dinaa ko def li ci son poste ma génne ko ngeen seetaan ko amaana li ngeen ci bëgg a dolli moom ban mën a am rajo bi ba ci télévision bi loolu moom bokk yi loolu ñu wax ñaan nañ ma ko may naa leen ko léegi nag bal baa ngi ci yéen kon kenn ku ci nekk boo ko déggee ak ni nga xamante ni bii noonu nga ci war a taxawee dem nañ ba ubbi nañ benn numéro boo xam ni ñoom dinañ ko wax ci biir muy 77 854 12 54. nga xam ni dañ ni képp ku abonné na ci def ñaari téeméer boo ko mënee wala ba lu ci ëpp lu ci waaye man ñoom loolu lañ proposé du samay wax ñoom di ngeen ko dégg léegi numéro boobu mooy 77 854 12 54 ngir lan ñu am studio jëndi ay matériel yu sophistiqué ba nga xam ni li waxuma la diine ji ñuy wax rek ay yor yu waaye mbirum lu jëm ci information sax da ngeen mën a dem ba bu ëllëgee chaque semaine dootu doon semaine ba semaine mais ñaari fan yu rek lay doon bis ba bis ngeen di am lu leen wér ci li yor wi doxe ak li ñu war a wax lépp ñu wut ab équipe boo xam ne dañu leen teg jox leen ko di leen ko liggéeyloo ñu di ko def lépp rek soqi yaakaar ni war naa mën a jëriñ taalibe yi rek mën a jëriñ jullit a jëriñ Sénégal lu prix bi jar rek dina ko dina ko fay bu soob yàlla lii nag xalaat yi bokki taalibe lañ bu ngeen leen déggee ñoom seen xalaat ñoo ko xalaat kenn ku ci nekk nag yaakaar naa ni yéen a jëm ci am am nga ju noonu kon loolu bëggoon naa ko leeral ndax dama leen du ci wax sax waaye comme ba ngeen ubbi compte orange money nga xam ne nit nañ ko dugal 77 854 12 54 léegi man dinaa ci wax ñaari kàddu rek kon li ci des ñoom bu ñu déggee bu ngeen yi ngeen xam ne ñooñu ñoo proposé loolu te bari na seen ñu nekk bitim réew ak ñeneen ñoo xam ne bëgg nañu mel waaye ñun ñëpp daal nan daal suñu xel fii jàmm rek a fi am lii nuy réer tiit lépp suñu borom day seral lépp ci mbaaxam ak màggam noo ko koy ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb barkeb alxuraan barkeb xasida yi yal na nu yàlla rus lii lépp tiit lu ñu ci tiit lu mu rëy rëy rëy yal na mel ni ngelaw muy mes nu mu ci jàmm ak salaam mu jeex takk nan ànd ak dal ànd ak dal te lépp nu xam ni sunu borom lu ko neex lay def waaye nag buñ ci kenn tiital buñ ci kenn rëg-rëgal nu jéem nag dellu ci jaamu yàlla bañ nag nekk nag di tiit ci wàllu xiif am ñu lu ñu lekk wala nangam nag bët ñi tax ñu wocc jàkk yi wala ñu wocc jumaa wala ñu bàyyi déedéet lu ñu gënoon di jaamu yàlla dañ ko doll ni ko sëñ bëgge ñu ngi julli waxtu yu juróom ci jàkka yi ajjuma ji ñu koy yebale fi ñu koy reebale waaye bu ñu fexee ba déserté jàkk yi ak jumaa yi ba nga xam ni kenn du fa dem ah bu boobaa dina leen leer ni ñun suñu bopp war nañu tiit kon nag nii ko sëñ bi nga xam ne ñu ngi nodd di julli juróom waxtu juróom yépp ñu ngi koy def ajjuma ji itam dina seet mbooloo war a toll nu mu yem ñu yemale ko loolu mi am ku ko ci mënoon sax boo amee haut-parleur guddi gi da ngaa war di teg alxuraan bu bët set wala bëccëg gi mu remplacer li nga xam ne mooy mbooloo mi waroon na fees te feesuñu loolu daal bëggoon nañu ko wax li ñu bëgg a wax lépp nag lii bokk yi bëgg bu sottee ci ngeen koy amee muy site internet boo xamante bi dañ koy defar ak yi mu war a àndal yëpp ànd ak rajo ak ànd ak lépp kon mbokk ñoo leen di gërëm di leen sat di leen bàllax di leen baloox jërë ngeen jëf bu lii jàllee nag benn dëkko ci ngeen di gis nag incha allahu rabbi li ci topp ñaar yëpp ay ànd nag dina gudd nag bi yoon da ngeen ñu jégal rek ndax mënut a bañ a gudd ndax bu ngeen gisee muy gudd nii lii mbokk yi bëgg bu ñu ko amee bu ëllëgee mën ngeen koy am 30 minutes yu nekk ko defee muy gàtt di di yaatu waaye nag du ma toog atu bis bu lëm a wax yi yëpp toog ba noppi bàyyi li ma jàppoon lépp nag ñëw toog di wax juróomi minute wala fukki minute wala fanweeri minute bu lii bokk yi bëgg bu amee rek gàtt gi dina am mbir yi dina gën a yaat dinañ ci yokk yeneen rubrique yoo xam ne day am incha allahu rabbi lépp rek liggéey la ko sëñ Tuubaa jërëjëf ku ci am loo xam ne mën nga koo bëgg boo woote ci numéro boobu sëñ Mortal wax muy 77 854 12 12 dinañ la wuy wuyu waaye moom mooy numéro Orange Money bi nga xam ni bokk yi wax nañ ko ngir ñu jaarale ci loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu euh, man la Cheikh Ndiaye euh, nekk fii si Canada. Euh, man maa defoon proposition boobu si biir sax émission Saxum Touba bu Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xaadim ngir ñun taalibe yi ñu jéem a xool lan la ñuy def ba émission bi euh, gën a yaatu te euh, am jumtukaay yoo xam ne sax war na na mën a dem ba nga xam ni day nekk lu mel ni ab télévision ndax dama see gis ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew Euh, émission bi daf nuy dimbali dimbali suñuy njaboot ndax man mii Cheikh Ndiaye euh, fii sama doom yoo fi am dañ dem ba nga xam ne émission Saxum Touba gi dañ ci gis seen bopp di ma tegloo ay xasida yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci biir émission bi euh, te yaakaar naa loolu ma ci dal ma ci dal sama mbokk taalibe yu bari yu nekk ci bitim réew ñi nekk ci xam naa ne lu mel noonu tamit ñu ngi koy dund kon émission bi suñu émission bopp la daf ñuy dimbali euh, ngir ñuy gën a mooy Sëñ dañuy dimbali ngir ñuy euh, gën a euh, xam kuy Sëñ Tuubaa ba gën koo jàpp kon loolu suñu yëfu bopp la ma gisoon na nag sëñ bi dañ ko see bàyyi moom kese mu wéet si ndax émission bi yenn saay da doon dañ dañ toog duñ ko gis mais ba mu ko gëstoo ba xam damay xam ne yenn saay la cay war a ànd ci koom ak yooyu xëy na mat ma gisoon ne nag ñun sagam sax pour seetaan film yenn saa da ngay fay pour seetaan film man ma jàppoon ni émission bi euh, ay koom yooyu waratoo waratu tax mu bañ am ba taxoon na sama xel nekkoon ci ñaan ndigal sëñ Moustapha Jaxate Xaadimu Xaadim ñaanu ko ndigal ngir mu may nu ñun taalibe yi ñu jéem a xool luy def ba wut d'abord site internet boo xam ne bu jàppandi la bu moderne ak it euh, ay jumtukaay yoo xam ne Euh, méngoo na ak doxalin jamono fi mu toll nii loolu nag lu yomb la euh, ma xaatoon ne ñun taalibe yi ku nekk bu joxe woon euh, gën ngaa néew ñaar téeméeri dërëm kese wala keneen ku bëgg a joxe lu ëpp loolu waaye daal ñaar téeméeri bu ko buñ ko déparé kenn ku nekk joxe ko benn yoon rek yaakaar naa ne ak ñi abonné site yëpp buñ ko boolee am naa yaakaar ne lii nu am yéene si liggéeyu Serigne Touba gi jaarale ko si Saxum Touba. am naa yaakaar ne dina dina dina jàppandi euh, moo taxoon ma ñaanoon sëñ bi ndigal euh, mu tasaare ko si mbokk taalibe euh, man nag sëñ bi dama ko yàgg gis ba ma nekkee xale tout tànk di ko seetaan Sud FM di ko déglu Sud FM ak yeneen rajo yi mu jaar yëpp ba mujjee Lamp Fall mais xam naa ne bu continuer di liggéey ci ay rajo yoo xam ne ñee na ko moom maanaam na mu ko bëggee liggéey noonu demee noonu. Euh, ma gisoon ne kon mu wutoon yëf boppam ñun taalibe mu jàpp si ba loolu am doon na am passif doon na baax moo taxoon may may soñ sa mbokk di soñ mbokk taalibe yi nu jéem a taxaw rek ba matale loolu euh, du ko defee nu am euh, matériel yu jàppandi yoo xam ne duñ ko tegee si loxoom liggéey Sëriñ Tuubaa gi yi du du du te it nañ ko na fan bëgg mu àgg fa dina fa àgg waaw loolu moo nekkoon kàddu yi man la woon Cheikh jaay nekk fii ci Canada euh, doon jàllale loolu pour mu bokk ak mbokk taalibe yi kenn ku nekk daal ñu lay ñaan bu fekkee mën na nekk euh, ab at yeewu ñaar téeméeri dërëm wala keneen ku am lu yéene gu ëpp loolu ñu teg ko ñu boole ko rek teg ko si loxol sëñ bi sëñ Moustapha Diakhaté Xaadim Xaadim ñun abonné yi nag ñun abonné yi Saxum Touba yi rek euh, Saxum Touba l'officiel ñun abonné yi bu ñu ko defee rek am naa yaakaar ne li ñu yéene ci émission boobu si liggéey boobu dina jàppandi kon asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi ziyaar suñu mbokk taalibe yëpp di ziyaar képp ko nga xam ne ni rek suñu kàddu mi ngi egsi ci yow ñu ngi lay ziyaare te di la nuyu nuyu bi gën a tedd ci nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xadim mi ngi lay ziyaare bu baax mi ngi lay delloo njukkal ci liggéey bi ngay def jëmale ko ci mbokku taalibe yi ñu ngi ci bég bu baax a baax a baax a baax a baax di wax ni nag euh, ñu ngi suivre sa émission bi lool am na solo trop muy Saxum Touba te it internet yi nga xam ne ñu ngi ci bokk ak commentaire yëpp ñu ngi koy xool waaye nag dafa am commentaire boo nga xam ne nii benn waay bu nekk Canada moo ko def ku ñuy wax Cheikh Ndiaye. kooku moom commentaire am boobu yaakaaroon naa ne bu ñëpp andoon ci commentaire boobu rek incha allah ci kàttanu yàlla liggéey bi gën a dana gën a jëm kanam ndax wax na ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci Saxum Touba l'officiel ñun ñëpp nañu mànkoo joxe ku nekk 1000 francs ñu benn compte dugal ko ci su ko defee sëriñ bi dina ci mën a jot jot googu nag nga xam ne moom la ci seen bi jot jotu ko ngir boppam jotu ko ngir dara lu dul gën a yeesal liggéeyu Cheikhul Khadim bi mu nekk nga xam ne liggéey bi 30 pour cent la rek ci li nga xam ne ni moom da koy def bii nga xam ne ñun ñu ngi ciy jot loolu 30 pour cent la ndax am na yeneen liggéey yoo nga xam ne nii man gësul naa sama bopp bu gis ko ba xam ko te nga xam ne jaaruma ci moom feneen laa jaar ba xam ne mu ngi koy def ci yoonu murid yoo nga xam ne bokkul ak yi benn sax billaahi wallaahi kon nag xaalis boobu nga xam ne moom la ñuy sàkku ci mbooleem ku abonné ci Saxum Touba l'officiel suñ ko amee ndax sëriñ bi gis naa ni bépp émission bu mu def moo xam ne jaar na ci YouTube bi suñu xoolee li mu ci daj lu metti la lu metti lool la torop sax macha allah ndax bu ñu xam bu ñu xam ne ñu ngi seetaan demuñu fenn ñu ngi toog suñu kër ñu ngi toog suñu bureau ñu ngi toog suñu ay place yu ñu mën a neex rek tappe Saxum Touba l'officiel génne waxtaan bi mu mujjee def noonu mu ñu yombe nga xam ne connexion dong lañ ciy ñàkk moom lañ ciy ñàkk ëpp na loolu fuuf ndax bu ñu seetloo moom bépp ba benn émission bu mu def bu nekk lu mu gàtt gàtt gàtt dana ci dana ci ñàkk ñetti junni wala lu ko ëpp fuuf sax ci dem ndax ku xam audiovisuel nu mu mel nga xam ne caméra ngay wax wax monteur wax cadreur wax réalisateur yooyu noonu yëpp su jekkee ba pare nag ñu soog ko mettre en ligne mu soog a ñëw ci internet bi ñu mën ko jot ci YouTube bi te ki koy dugal dañ koy fay nga xam ne loolu kon financement la boo xam ne ni sëriñ bi mu koy def chaque jour ngir ñun bokk talibe yi rek ñu maanaam ñu am lu ñu xamee ci sëriñ bi. beneen bi ma ci yokk mooy nit nag bu la nekkalee ci kër gi yow maanaam nit soo nekkalee ci naaj bi yow da koy nekkal ci kër gi comme que moom mi ngi def lépp lu mu mën a am ngir lan ngir yoonu murit nga xam ne moom porteur de voix la voix am ñëpp dañ koy déglu ñëpp xam nañ ko ci dëggu ak liggéey ak bëgg Sëriñ Tuubaa kon loolu noonu ñun ñi nga xam ne nag ñun ñun ñooy déglu ñun ñooy nekk ay auditeur ñooñu ñoom ñoo war a contribuer ci li muy def ngir mu mën a jëm kanam ndax ñun soxla nañu ku ñu wax ci Serigne Touba soxla nañu ku ñu wax ci Muhammad Rasulullahi soxla nañu it ku ñu digteel xasida yi naka ak naka lañ ci mën a jëriñoo yooyu yëpp soxla nañ ko te yooyu yëpp bu ñu jaaree ci moom dana gën a yomb ndax émission yi ñu ngi koy ñaan moom Serigne bi fekkee mën nañu ko defal mu defal ñu ko ay parti yoo nga xam ne ay xaaj yoo nga xam ne nii dinañu amal njëriñ am na njëriñ macha allah waaye yaakaar naa ne bu xaaj yooyu bu ñëwoon ci lay ëpp solo ci ñun lu ko mel ne ni mu am première partie deuxième partie ak troisième partie maanaam xaaj bu njëkk ak xaaj bu sopp ak xaaj bu soppaat mu nekk ñetti xaaj yoo nga xam ne nii suñu ko xaajalee émission yi dinañu mën a jëriñ lool bii daf ñuy wax suñu diina na lañ koy jàppee bii daf ñuy wax ci rasulullahi bii daf ñuy wax ci Serigne Touba ak xaside yi ñi nga xam ne nii moo taxoon léppam mu jaay ko ngir rek ñu am indépendance bi ñu am nii tey ba yi jàng xasida yi fu ñu neex te kenn du ñu mën a wax dara kon nag maa ngi leen di ñaan ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci Saxum Touba lii Cheikh Ndiaye wax nañu ko def ñu ànd ci ak sëriñ bi liggéey bi gën a jàppandi te beneen bi nga xam ne moo ci gën a yéeme gën ci doy waar maa ngi leen koy xamal tey xam na ñu bëri xamuñu ko mooy sëriñ bi nekkoon na ci benn rajo bu ñuy wax làmp Fall nga xam ne dafa am émission ci télé bi am émission ci rajo bi foofu ñaari at wala lu ko ëpp yu mu fa nekk musu faa fayee ko benn dërëm lépp lu muy def da koy def hadiya Serigne Touba xam nga ne kon kooku du xaalis moo ko jiital wala du xaalis moo ko tiital comme nag ñun ñoo ciy jariñu ñun ñooy bénéficiaires yi kon nañu def benn association ba nga xam ne ni dañ ciy indi xéewal bokk ko ak moom nga xam ne lépp lu muy soxla ci wàllu émission yépp di mën a am sax même sax bu fekkee ne sax dañu dem ba ñu mën ko am en direct muy waxtaan ñu mën ko am en direct suñu paree ñu mën ko woo mën a poser question yooyu noonu yëpp ci suñu kanam la nekk waaye nañu def lii muy ku nekk nekk ci sax Saxum Touba na nga joxe 1000 francs yoo nga xam ne dañ koy jël jox ko ko mu mën a jënd li mu soxla yëpp ndax li ñu bëgg mu gën a mën a jàppandi sama mbokk taalibe yi nag laay waxal ak murit saadix yi ñun murit yi ñëpp xam nañu suñu pas-pas ci seexul xadim xam nañ ne ñun amuñu kudul sëriñ tubaa gëmuñu kudul sëriñ tubaa doylawuñu doylawuñu kudul kudul sëriñ tubaa kon nag maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp nañ ko def incha allah ci kàttanu yàlla su ko defee dina gën a jàppandi liggéey bi dina gën a jàppandi lépp lépp lépp lépp lépp lii may wax nii nag samay kàddu la man mii Mouhamed ma sëriñ Fall maa ko wax sëriñ bi waxloowu ko jëfloogu ma ko man maa xool liir xool internet yi xool commentaire yëpp gis ne lii nag lu ñu war a def la su ko defee nag dinañ ñu gën a jàppandil ñu gën a mën a wax maanaam ñu gën a mën a am waxtaan yi nga xam ne sëriñ bi dina ko jàllale asalaamualeykum wa rahmatullah wa rahmatullah asalaamaaleykum sama mbokki taalibe li ma bokkal Saxum Touba eh, ma ci jiital suñu jëwrin suñu sëriñ muy sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim mi nga xam ni royukaay la ci xarnu bii ñu ne ci ak taalibe ak jullite ak murit saadix sëriñ Moustapha Jaxate nag day ko nga xam ni ah sama classe gi nga xam ni am nañ pas-pas ak yéene ak bëgg lool sopp lool sëriñ Touba ak pas-pas yi toppi ko roy ci moom te dëgg-dëgg day day day sëriñ bu mat sëriñ ci ñun ndax def ñuy xamal yoon wi xamal ñu suñu diine xamal ñu nu ñuy royee nu ñuy doone taalibe te it dañuy jàngal nu ñuy wormaale sëriñ bi ak njabootam ak dëkkam bii di Touba eh, ma gis ci moom sëriñ Moustapha Jaxate Mm, ni bu fekkoon ni mel nañu ñu bari ndax seex la baayam seexal la baayam seex la moom muy seex yore ay taalibeem yore dëkkam da ko ànd ak woyof teg seex ga fële teg sëriñ ga fële nangoo doon soldaaru yoon wi ba tax ñu tudd ko xaadimul xadim ah, di def fépp foo nga xam ni ñoo nga fay suufeel walla ñu fay ñaawal derub murit mu taxawal ko fépp foo nga xam ni laaj na ñu yëkkati fa eh, yoonu murit ak ku tedd ci sëriñ mu taxaw ko seetu ci Masamba seetu ci ma demba ko ku fit ak xam-xam ba nga xam ni kenn mënu koo wax ci dara ndaxte dafa jàng fa ay nawleem seex yu baax yépp jànge muy ginnaaw ci réewum senegal gi muy Arabie Saoudite du yeneen réew ci réewu arab yi ba am fa ay dijaa sàmm ñëw boole kook li nga xam ni da koo donn muy seex gi nga xam ni da koo donn mu jóge ci Sëriñ Tuubaa ñëw ci maamam ñëw ci baayam mu doon ko yori taalibeem kon kooku bu nangoo lenn li ah jaayante gi muy jaayante eh, ñun njariñ la ci ñun ba tax na eh, am na xel moo nga xamee ni suñu mbokkum taalibe boo mu nekk Canada eh, muy Cheikh Serigne Cheikh njaay génne woon ko ma rafetlu ko lool ñu bari rafetlu ko ma jàpp ni yoon na nag ñu jëmmal xalaat boobu muy xalaatu jéem a fexe ñun ñi nga xam ni ñooy topp saxum tuuba te ci jariñu ci suñu diine ak suñu taalibe eh, ngir fexe ba saxum tuuba moomu am ay moyens eh, audiovisuel yu doy yu efficace yu am yu méngoo ak jamono ngir mu mën a gën a tas ci àdduna si gën a tas ci mboolem njabo suñuy yi taalibe yi gën a tas ci taalibe yi diaspora ba te dëgg-dëgg liñ ci jariñoo eh, mu jariñ suñuy doom ak suñuy sët ndax jamono bi doy na waar doy waar goo nga xamee ku mel ni Moustapha Ndiakhate Saxum Touba mi moom mooy ki nga xam ni moo mën a gindi njaboot gi moo mën a teg njaboot gi eh, ci yoonu murit saadix te du weesu lu dul xamal leen lan mooy yoon wi xamal leen lan mooy sëriñ Touba te xamal leen it nu ñuy toppe sëriñ Touba ak nu ñuy wormaale sëriñ Touba ak njabootam gi ak dëkk dëkkam bii di Touba ba tax na daal eh, man daal sama xalaat mooy eh, loolu lu yomb la loolu Cheikh Ndiaye proposé ndax buñ ne képp ku bokk Saxum Touba mu jaayante lu gën a néew muy ñaar téeméer ba lu ko xelam may ak lu ko man-manam may waaye minimum bi doon ñaar téeméer mille francs mu koy mu joxe ko ngir ñu mën cee am ay matériel audiovisuel yu méngoog jamono yoo nga xam ni dina tax liggéey bi macha allah yegg fañ ko bëggee eh, yaakaar naa ni ñun ñëpp war nañ cee taxaw waaw ba ma sa yoon nag man sama xalaatu bopp buñ ci ñëpp nag d'accord ànd ci ah ñu joxe ab numéro boo nga xam ni comme que jamono ji léegi orange moo ne am na wari am na ah foo mu waay nekk mën a yónnee sa mille francs mën a yónnee cinq mille yoo am mën a yónnee dix mille am loo am xeebuñu dara waaye itam yéemuñu dara ngir rek ñun murit lépp lu ñuy def rek war nañ ci am ndam te surtout que lii nga xam ni Saxum Touba dafa war a doon audiovisuel ba nga xamee ni eh, matériel audiovisuel yi mu war a yore war na doon yu mucc ay méngoog jamono ba nga xamee ni ah mu dina mën a tontu ci eh, soxla yi nga xamee ni moom la réew mi ak àdduna soxla ci eh, yoonu murit borom yoonu murit muy Cheikh Ahmadou Bamba mu Rasuul suñu yaakaar tey ak ëllëg ak dëkkam bii di tuubaa ak njabootam gi waaw ndax loolu dong moo ñuy jariñ àdduna moo ñuy jariñ àllaaxira loolu tax ne daal eh, lii daal moom moo doonoon ngeen baal ma sama xalaat yoo nga xam ni xalaat naa ko bu yàgg saa su ne ma koy xalaat waaye mënatuma koo téye ma bëgg koo partager ngir ñu jublu ci loola. waa di leeral ni rek. Eh, sama surtout rawatina sama mbokki taalibe yi nga xamee ni eh, yaakaar nañ ne moom ñi jàng nasaraan rek ñooy intellectuel ma li leen di xamal ni eh, sëñ Moustapha Diakhaté mi eh, dafa am ay xam-xam xam ci communication ci boppam sax dafa war dañ ko war a xam te dafa war a jariñ yoonu murit yëpp rawatina ñëpp ñoo xam ni rek ñoo ngi ci sàqu mi sàqum Tuuba waaw ba tax na eh, di nga xam ni eh, sama mbokki taalibe yi ñu mel ni ñoom Cheikh Ndiaye ca Canada ak yeneen ñoo ngi koy xalaat muy eh, fexe ba sax mi am ay moyens de communication yu xarañ yoo nga xam ni dina tax xam-xamam ci communication ñu mën koo jariñoo nu mu gën a yaatoo ci askan murit yëpp mën koo jariñoo Eh, yaakaar naa ni dafay am solo lool te loolu nag ca dëgg-dëgg eh, li ci sama mbokk yi li ngeen ci proposé neexul ba neexul waaye jàpp naa ne kenn ku ne mën nga ko waaw ndaxte moom ci boppam moom sëñ Moustapha Diakhaté boobu ba léegi ci moyens yi boppam ci alalu boppam la koy defee da koy jaayante moom léppam da koo jox Serigne Touba waaw boo li muy doon liggéey lépp ci sàq bi ci loolu la koy def tey la mu daan liggéey la mu ko daan defee ci télévision yi itam mos ci nango laaj sax benn dërëm ab salaire wala dara kon ci ci jaayante la defar lépp waaye ñun nag ñun ñoo ñoo soxla xam-xamam boobu ci communication jariñoo ko ci yoonu murit ba tax na ñu bëgg eh, am ay moyens de communication yu xariñ yoo nga xamee ni danañ am site Saxum Touba day am site bu am solo bu xariñ bu am solo boo nga xamee ni eh, dina tax eh, xalaatam ak xam-xamam ñu mën ko partager bokk ko ak euh, askanu murit yëpp rawatina képp koo xam ne rek yaa ngi saxum Touba ba tax na daal euh, li ñuy wax daal man ànd naa ci te maa ngi ñaan it képp ku déglu vocal bi nga nga def ci loolu muy lan bu néew ba néew 1000 francs euh, yéemuñ nag dara loo xam ne rek li am solo rek mooy ñu mën a matal mooy matériel yooyu ñu am ko ba am sit boo xam ne bu murite lay doon boo xam ni sax mi dina tax àdduna sépp xam ko waaw xam-xamu sëñ bi sëñ Moustapha Diakhaté itam ñu mën koo jariñoo waaw kon bokk mu ngi noonu eh, xam naa ni nag eh, li ci des nag mooy xam naa ni dinañ jéem a fexe ba am nu ñuy mën a yónnee ku ci nekk la nga bëgg a dugal ci mbir mi eh, sa ñaar téeméer ñetti téeméer sa junni loo mën a am rek donc dinañu xam naa ni du ñàkk dinañ ñu wax naka la ñuy def ak fu ñu koy jaarale fuñ koy dugal bu dee orange money wala leneen xam naa ne dinañ ko gën a leeral waaw may daal man daal xam naa ne moom mbir mi moom adhéré naa ci te itam te soññ naa ci képp ko nga xam ni rek jàpp nga ni eh, da ngaa bëgg a jaayante pour bokk ci liggéeyul Serigne Touba liggéeyee ngi ni boo nga xam ne ni macha allah liggéey bi eh, lañ cey def tuuti na lool par rapport ak njariñ la muy am waaw ndax njariñ li moom ku ne umpale ko. Euh, xam-xamu sëñ Moustapha Diakhaté bu mu ko gën yaatal njariñ lay doon ci askanu murit ndax moom mooy euh, xaadimul xaddim te euh, ni mu doone xaadimul xaddim ci ay jëf la yoo nga xam ne yu amal njariñ sëriñ Touba xaadimu rasool ak yoonu murit wi la ak ñun taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sama mbokki taalibe yi ma bokkal Saxum tuuba man Mor Tall maa leen di yëgal ni ginnaaw bi ñu waxtaanee ci suñu biir ci liggéey bi ñu bëgg defal sëriñ Touba ak yoonu yoonam wi ci Saxum Touba jaarale ko ci sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim am nañ ci ndigal bis ni ki tey ci sëñ Moustapha Jaxate ba tax na képp ko nga xame ni ah bëgg ngaa bokk ci liggéey booba na nga jàpp numéro bii muy numéro orange money boo nga xamee ni képp ku ci loo ci lu ci waay yéene rek mën nga ko ci yónnee muy numéro 77 854 12 54 77 854 12 54 ginnaaw loolu itam keneen ku bëgg a yónnee ci yeneen yónneekaay def ci say addiya man nga koo def ci turu Serigne Moustapha Diakhaté wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan ala bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad saxani liwatani bihi nafa ma